Alfayda FM الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في الله والأصدقاء في الإخلاص السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi maa ngi nuyu ilimaan bi di nuyu chef de quartier bi di nuyu notable yi di nuyu waa dëkk bi boroom xam-xam yi di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci gox bi rawaate na ñi sabab lu daje bile waaye di leen gërëm itam ndax it loo bëgg a bëgg joxe dara ci xam-xam ngir yàlla bu fekkee ne sàkkuwuñ ko ci yow defloowuñ la ko aman na occasion boobu doo ko am kon nag bu fekkee ne wax dara ci mbiru yàlla ab yoola nga ci boo ko defee itam nag ña ko sabab ñoom itam seen yool dana yaatu ndax ñoom ñoo indi occasion loolu kon maa ngi leen di gërëm ci lool eh, tàmm nañu di dajee di def ay waxtaan tuddee ko ay conférence li ko waral moo di doomu aadama ci xarnul ishrin bi ñu toll dafa yàkkamti dafa yàkkamti te bëgg naa xam bëgg xam bi mu bëgg xam te yàkkamti tax na jëlëb téere di jàng ba mu jeex yombatu ko tax na itam toog ci daara ñu di la jàngal yombatu ko ñu yaakaar ne kon daje benn daje bu mel nii rek dal fay am lu ñu tënk jox ko doomu aadama mu jëriñoo ko loolu léegi mooy gën a gaaw jëriñ nitu xarnul ishrin muy wencem seek aman na nag euh, thème bi du ma wax ne xëy na mosuma ci wax waaye néew na ma jaaxaloon sax aaxiru zaman nu muy nekkee thème waaye fekk na ndeke nit ñi loolu yitteel na leen yitteel gëm leen na yitteel nag xëy na tax na loolu moo loolu moo puus be maxleen be ñuy sàkku waxtaan ci loolu mu ngi mel nii daal kon dañuy daje pour def murajaa murajaatul xayaa mel na ni dund bi ñuy dund waxtu wu ne war nañu daje di ko di ko réviser di ko nafar daal bu ñu nafaree dund bi ñuy dund ci àddina amaan na loolu danañu jox genn leer wala benn lumière bu ñuy niital dund ba nu nara jëm ndax ku ne xam na ne dund bi nu nekk mu di àddina dund bu néew la buy fëkk la buy gaaw a jeex la waaye nag ci moom ci la ñuy mën a niitee dund ba nga xam ne mooy bay sax te mooy yàgg mool muy ay alxayaatul uxrawiya ke nekkut ci ne fokk danañu jóge fii loolu moom ki gëmul sax yàlla xam na ko ki gëmul yàlla problème am mooy dekki la dut gëm waaye terewut gëm na ne fokk dana jóge ci àddina loolu moom xeet yëpp ak euh, nit ñi ak li ñuy wuute wuute ay naanuwaay ki jubluwaay ñoom ñëpp bokk nañ gëm ne danañu jóge ci àddina waaye ku jógee fenn fokk dana am foo jëm fa ñu jëm nag mooy dund ba nga xam ne mooy mujj muy al axira loola nag mën na gaaw ci jëmm ji mën na yéex waaye bu yéexee itam daanaka lu gaaw la ndax nit koo xam ne buñ ne dund na téeméeri at ñëpp yéemu ne kooku day yàgg na fi kooku xam nga kon ku am juróom fukki at wala ñeent fukki at kon daan daanaka jeexal na day wàññeeku waaye jëmatul ca kanam kon loola lu mu yàgg-yàgg fokk dem dana am moo tax ñu tànn mawdu yaakaar naa ne lu yitteel la itam waaye ni ko oustaz Lamine Dia waxee léegi dafa mel na ki aaxiru zamaan ku ci wax koy nit ñi rek moom lañ la sas kon pour nga wax ci ndax bu jamono soree ba ñu yaakaar ne day jeex nga doomu aadama dafa tàmm wax aaxiru zamaan dañu tàmm wax mujjug jamono àddina dafay tukki waaye kañ kenn xamu ko ba war gisee ñu naan mujjug jamono doomu aadama dafa dafa tënk jamono ci boppam moo tax comme moom du yàgg leen mu dem mu daal di ne kon léegi mbir yi jeex waaye boo seetee ba ñuy dalee wax mu yëg jamono ak léegi ay téere di ci bind ni muy yàggee ëpp nañ junney at ndax yonent bi alayhi salaam bi ko yàlla yónni dafa ne istu ana wa saa kahaatayn yónni nañ ma fekk jeexuk jamono ba bés pencey ñëw ak sama dikk mu ngi mel ni ñaari baram yi ñu rawaate tuuti kon nag yàgg na mu ngi tolloog nit ku nekk ni nga toll ngay waxe jeex na yàlla bokkul ak sunuy jeex bu yàlla ne ak mujj bokkul ak ñun bu ñu waxee ak mujj ndax ku rëy lu tuuteem dafay rëy kon nag bi yàlla ne jeex na gis nga ni mu yàggee te ba tey jeexagut waaye ala kulli xaal ni ko alquran waxee rek yaraw innahum yarawnahu baidan wa narahu qariba ndax yàlla toll noonu ndax eh, mbirum jege ak sori loolu il faut nga jéem ko analyser jege ak sori eh, lépp lu jege dafay am lu muy jege waaye lu sori it dafa am lu muy sori maadaama sori am na jege am na ku ñuy jege am ku ñuy sori am fokk ñu am nuqtatul bidaaya ak nuqtatul nihaaya fokk ñu am point bu ñuy dépare ak fu ñuy yem bu ñu dépare wul fenn yemuñu fenn jege ak sori dootu mun am nit nag ak mbindeef yëpp am na ñu départ am fu ñuy yem kon mën nañu wax ci ñoom mu jëg jamono amaa bi nisbati lii buñ ko jëmoon askane ci borom bi tabaraka wa taala yàlla moom amul point bu mu dépare amul itam fu muy yem loolu moo tax ulama yi ne yàlla ak njeel beenam amul tàmbali ak mujjam amul ak jeex euh, ndax loolu mu ngi mel ni diggante asal ak abad ulamaul mantiq ba ñuy seetee asal ak abad ñu analyser asal asal mooy euh, cosaan wala tàmbaliwaay ba ñu ko analyser balaa asal a jeex mu yëgsi ci abad te abad mooy cayye fawwa lu yemut fenn su fekkee ne asal balaa moo jeex yéeg si ci abad abad nekk asal asal nekk abad yàlla te yàlla noonu la mel njëlbeen gi du tàmbali mujj du jeex ndax fi mu doon jeexee fa la tàmbalee fi muy tàmbalee fa la jeexee xam nga lu muy niroom da ngay gis jaan ju watu wala wata bu dem ci beeñ nga xool rek fa mu jaar boo fekkeewul ba mu fay jaar doo xam fu mu jëm fu ne la jëm yàlla noonu la mel su ko defee kon bu ñu waxee ak mujj bi nisbati li lil xaaliq nekkul mujj goo xam ne dafa jege ni ñu koy mën a gisee noonu waaye ak mujj la ci ñun gu jege ndax euh, fi nu jëm ku gont rek dal di fanaani te it ku xëy dal di yendu ji loolu moom ku ne xam na ko ana mu fi nekkoon léegi ñu ne moom dafa doon def nangam rek dem na dal na yendu ji dal nay fanaani kon nag loolu nekk na loo xam ne lu jege la konte laxas na nu am na fu nu jëm foofu nu jëm nag euh, te sikk nekkut ci ne noo ngi fi jëm kon war naa am daal ay constat yu ñuy def war na am yu ñu nemmeeku ci suñuy mbir balaa loola am te loola mooy te muy tekki moo di ne mandarga yey tekki ne lii léeg mu jeex mooy ñu jullit ñi suñ ko xamee kon war naa am nun def ndax ku am ay tegtal yu wér ci dund ba ngay dund wala nekk ngay dekk ne mu ngi waaj a jeex war naa am daal noo war a mel axiru zaman maanaam mooy jegeeg jeexam daal te wax naa léegi ne kenn sikkut loolu donte xamuñu kañ la jamonoy jeexit amuñ sikk ci ne jeex dana am ndax lu dul yàlla rek dafa war a jeex wa kullu shay'in halikun illa wajha lépp lu dul yàlla rek am na fu muy jeexee kon nag buñ ko xamul it duna am benn werante ci ne dafay jeex bu ñu waxee nag axiru zaman kon dafay tekki ne jamono jege na ci fa muy war a jeexee waaye ana lu ñuy xamee loolu nan la ñuy xamee ne ñoo ngi ci mujjug jamono waxtu wu ñu gisee génn topp bari yàlla rëddoon ne nañ ci jaar ña koy teggi gën a bari waxtu wu ñu gisee ma yàlla gën a bari li yàlla ne woon bu ko kenn def ña gën a bari di ko def te duwul sax ay yéefar a koy def waaye ñooy askanoo ca lislaam fekk ñoo koy def benn ñu ngay laye ne dañoo avancé moo tax ñenn ñi ne dañoo développé ñenn ñu ne dañoo am liberté gis nga baat yooyu ñu ñuy naxe képp ku ci jaar bi li yàlla ne woon buñ ko def nga def ko it da ngay nax sa bopp rek avancé woo développé woo amuloo benn liberté euh, tax na ba soo seetoon tey benn waay ne na ma da ngeen waroon wax ci buur mu tere ñu naan sàngara ma ne waaw waaye waxoon ak jullit ba mu teg fi sàngara moo gënoon a jaado ndax bu ko jullit yi naanu ton rek du jar sàngara si yëpp jullit yee koy naan li ko waral mooy mu ngi jar te jullit yee gën a bari ñoo fi gën a bari kon ñoo koy naan moom boo ko gisulit loolu moom mën nga kaa xam su ko defee loolu day teg ki ne bari génn topp dafay teg tekki nekk ci mujjug jamono mbokk jullit yi lislaam moom mooy lislaam waaye dafa am ay ay qawaid ay fondement la am dafa am itam ay mabadi ay principe daf ko am léeg-léeg ñu ne euh, nit ki am na liberté wala nit ki am na sañ-sañ te mooy liberté d'accord nit ki am na sañ-sañ ci mu def lu nekk balaa woo teg yonent bi yegsi ci moom waaye ba ñu yónnee alayhi salaatu wasalaam jox ko téere mu jël garantie ne téere bi da ngeen ko xam yéen ñëpp ci arab de la ñëw waaye yéen ñëpp da ko dégg wolof bi dana ko dégg naar bi dina ko dégg saraxule bi dina ko dégg lakk woo mën a lakk ci àddina yonent bi jël na garanti ne woote bi dina yëgsi ci yéen ba tax na alquran ñu ngi koy tekki ci làkk wu nekk ndax loolu yonent bi ko gàddu woon ba ko ko yàlla joxe ba ba ko yonent bi ne ko balli ba ko yàlla ne ko ma maa unzila ilayk gis nga ndigal bu jógee ci yàlla di muy foore baat bi yàlla wax ballir tax na jox na yonent bi kattan ba jottali na tax na ba alayhi salaatu wasalaam ca xajatul widaa bésu arafat ca takkusaan ci bërëm buñ naan Arafat mu nekk ci penku Makka ci yoonu yeman wa mu taxaw fa war ci génn gilem naaj waa ngi tàng am lenn ci saxaaba yi ñu jël benn sër takk ci ay bant di ko ko muural ndax mu wàññi tàngaayu naaj wi keroog la waxoon nit ñi ne maa ngi leen di wax li ma leen di mujj wax jàppee leen seenu seen diine ci man loola mooy wax ne moom rek mooy royukaay xam nga koo roy ku ma yonent bi rek dana juum ñëpp rek ñooy manqué koo roy ku ma yonent bi rek dafay juum waaye moom rek mooy ki nga xam ne du juum li ko teree juum mooy yàlla daf koy yónni tànn ko sellal ko te bàyyiwu ko balaa muy tarxiis mu ne ko bul bàyyi loolu naan la abasa wa tawalla laallaka baaxiwa nafsaka bul def nangam lu tax ngay def nangam li ma tuxarimu ma la lak su ko defee moom du mën a juum ndax dafa am ku ko yore di ko walbati xarisa bi nekk ci ñun nga xam ne moo ñuy xiir ci yu bon moom amu ko far ndax it ulama usira wax nañ ko ba ko nampalee ci giir bani saad ca xalimatu saadiya ibnu abi zuwayb dañu xotti woon xol bi am lu ñu ci dindi bay loola tax na ba mu melut ni nun moo tax itam waruñu jël kenn di ko niréleeg yonent bi wala di ko dendaleeg moom naan yonent bi defal nañ ko nangam kon diwit nangam haasha jubawuñu tollowuñu euh, moom rek moo mel noonu tax na ba moom rek la ñu war a roy te njuumte ci am moom rek la yàlla wax ne atiu llaha wa atiu rasul moom rek la yàlla wax ne in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni su ngeen bëggee yàlla toppaleen kon mu ngi mel ni topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci mandarga yi bëgg yàlla la ñàkk kaa topp ci mandarga yi ñàkk bëgg yàlla ndax loolu alquran moo ko wax boo xamee mantiq in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni mu ngi mel ni charte ñëw na charte bu ñëwee foog mu am jawaab bu jawaab dikkee li muy tekki mooy dëgëral na charte ndax waxtu wu charte amut lañ doon charte kon dootul am comme ni ko bayaan waxee iza fuqida chartu fuqida al mashrutu minhu kon nag mu ngi mel ni kon yàlla ñun ngi ko takkee ci topp yonent bi in kuntum tuhibbuuna allah charte baa ngoog fattabiuni faaji waqia fi l jawaab amru boobu wala fiil jooju nga xam ne gars yi jësam nañ ko ndax jawaab la li muy tekki mooy dafa takkoo ak charte ba kon nag bëgg yàlla chartam mooy topp yonent bi alayhi salatu wasalaam kon moom rek lañ war ah di ngeen baal ma bu baax miinu ma di wax lu neex nit waaye miin naa di wax dëgg ndax waxu yàlla rek lay doon tax na ba dana bari waxtaan yu dañ fa jógee ku nekk bu ñibbee naan diw la doon wax waaye li may ñaan mooy kuy nettali li may wax rek li ma wax ba ba mat sëkk bu ci jàdd dara ndax li yàlla wax rek la sama bàyyi waxu ko dama koy nettali su loola amee rek sama conscience dana tranquille te it ñu fi jógee ku nekk ne diw la wax wax na dëgg diw laa wax ndax yàllaa wax diw moo male ndax bu yàlla yi wax du bàkkeen ndax ku bind li mu bind xam na ko te yàlla mooy wax kon nag du bàyyi kenn danaa wax sama bopp wax leen wax ku fi nekkul wax keneen ak keneen ku ne da nga ci jël sa wàll allah yaalamu man xalaqa ku bind xam ne li mu euh, mbokk yi wax naa léegi ne l'islam dafa am ay ponkam ma wax nag ne doomu aadama am na liberté ci balaa dugg ci l'islam booba la am liberté waaye boo xasee dugg ci l'islam amatoo liberté lu tax dafa am luñ ne na nga ko def am luñ ne doo ko def liberté ñëwatul waaye nekk ci lislaam ba pare naan maa moom sama bopp am naa liberté déedéet da ngay nax sa bopp amoon nga liberté balaa nga cee dugg nii la mel nga ñëw ne dugg nga ci dafa am ay ponkam faw wa nga nangu caa tënku wala nekk tub julit moo tax ma ne waxtu wi woote yonent bi eh, yëgsee ci yow ba lislaam dugg ci yow amatu liberté gisa xadis bi wax naan addunia sijnul mu'min ñu bari duñu ko duñu ko mën a xam prison la ci julit aljana la ci yéefér ñu bari duñ ko mën mën dégg waaye lu simple la xam nga prison mooy ñàkk liberté bëgg a dem ñu ne doo dem te kon àddina cib julit prison la ndax yow boo gisee alali jàmbur euh, alal neex ñu ne doo ko jël ndax moo moo ko nga gis jigéeni jàmbur ñu ne doo ko laal ndax moo moo ko nga gisu ñol la bëgg ko ñu ne doo ko naan ndax ndax moo moo ko nga dégg am po bëgg caa dem ñu ne doo fa dem ndax daganut ah kon amatoo liberté te jullit bu ne noonu lay nekkee ci àddina yépp yi neex bakkante daganut sharia daf la koy aayee kon yaa ngi ci prison ndax amatoo benn liberté yéefar bi na ma ngi ci aljannaam ndax am na liberté lu ko neex rek mu def moo tax ma ne boo xasee nekk jullit nag ba sottal amatoo liberté pour def lu la neex sañatoo wax lu la neex sañatoo def lu la neex lépp looy wax wala nga di ko jëf fokk rek na dëppoo ak ni ko lislaam diglee lépp looy bàyyi it na dëppoo lu lislaam tere na nga jël sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nekk sa lumière bi lay niital fi nga jëm ndax dafa am aw yoon yoon woowu mooy siraatul mustaqim te alquran indi ko ndax yoon yi bari na waaye yoon wi nga xam ne moom la julit bi ñaan boromam mooy siraatul mustaqim ndax gis nga boo seetee faatihatul kitaab bokk na ci ñaan gi ci gën a rëy ihdina siraatal mustaqim ne ihdina siraatal mustaqim yan nag ñu jubal ci yoon wi ne coow ndax yoon wu ne dafa am fu mu jëm te yoonu yàlla bu dul yegg yeggal nit ci yàlla borom jaaru fa ku yegg jaar ci yoon daal moom fokk rek da nga yegg kon yoonu yàlla ci yàlla rek la jëm boo jaaree ci yoonu yàlla te mënoo yegg ci yàlla boo yeboo nga wëññeeku xam ne jaaragoo yoon loolu moo tax ma ne su sunu si yonent bi nag moo nuy niitali yoon woowu xel rek du ca baax sharia kenn du ko nattalee yàlla kenn du ko jaamu ci sa xalaatu bopp yu bari nga yaakaar ne fa la sharia yi jaar du fa jaar parce dem ba wax naa benn sama benn taalibe bu may jàngal ma ne ko booy jàng njàpp ci laxdar yu mu ne la mu ne la booy sangu wala ngay jàpp mu ne la taxliilu asaabiil yadayni mu ne loolu day yajibu taxliilu asaabiil rijlayni mu ne kooku yustahabu kooku bu doon xel-xel du jaar foofu sooy raxas tànk yi baaraam yi nga di leen diggalee di leen xër bi ne loolu dañ ko sopp rek waaye baaraam loxo yi nag fexe ba affaire bi dugg ci diggante bi mu ne dafa war loxo set wecc nekk ci kaw tànk nekk ci suuf fu ne ma di fa dugg ñu ne ñu dugal ci baaraam di ko luqar bi loolu lu ñu sopp rek la loxo mi dara taqul nag diggante bi mu ne fokk dinañ ko dinañ ko xalil maanaam loolu du xel bu doon xel la kenn du ko wax waaye sharia noonu lay jaare moom loolu fuqaaw yi ñoo ko xam ndax baaraamu tànk sharia da ko considéré comme benn cër kon jarut xalil baaraami loxo nag sharia da ko considéré comme ay cër yu teqali ko loolu moo tax moo tax ma ne yàlla kenn du ko jaamu ci xel da seet sunna fi mu jaar rek nga jaar am na beneen masala bu mel noonu ñëw na ci al axdari al axdari mu ne da nga jaar fii ron étage bi am lu sotteeku sa yére daal di tooy moo lii sobe la wala du sobe sharia ne du dara demal nga dox ba yàgg sobe wadd ci sa kanam ba nga xool ko xam ne lii sobe la mu ndax nag laal na maag laalu ma waaye sobe la sharia ne ah jëlal nag ndox nag wicc ci sa yére bu doon xel la xel du jaar foofu waaye sharia la lu waral loolu lii moom da nga ci amul benn sikk daf laa wóor ne sobe la li nga sikk kay mooy laal na la ak laalu la ah comme sikki sàkk am na ci wiccal sa yére lii nag moom laal na la ba sottal laal gi moom moom sikkatoo ko mais ndax sobel am déet sharia du dara ndax buy ndox cosaanu ndox yëpp seen cosaan mooy dafa laaboon wala fii ne raxasit ndox la woon bi mu nekk gu raxasit dafa nekkoon ndox kon cosaan yi na woon mu ne bàyyil kon nag sharia yàlla kenn du ko jaamu ci sa xelam bopp day am ay régal foog nga jaar ci régal yooyu nag mooy sunu su yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy régal yi nga xam ne ah ci la ñuy mën a jaar mu leeralal ñu yoon wi nga xam ne ci la ñuy mën a aw te waxtu bu yàlla xasee wax ne lii la bu la neexul it nag noonu la pour ñu xam nag ne jullit nga foofu lañ koy nattee yàlla ne nii la nga ne waaye way mais du baax waxu yàlla waxu yonent bi du am way mais alquran indi na ko ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiira min amrihim ci suratu al ahzab kon mel na ni kon ab julit moom bu yàlla xasee atte mel ni mbir wala mu xas ko wax amatoo ci ak tànn al imam ahmad radiallahu anhu daf ne ida qaala lahu tabaraka wa taala mu ne fa bil ayni wa ras ida kaana ida qaala rasul alayhi salatu mu ne fa bil ayni wa ras mu ne ida ida qaala gayruhum mu ne nanzur fa hum rijal wa nahnu rijal bu yàlla waxee mu ne topp rek ak dégg bu yonent bi waxee mu ne dégg rek ak topp ku mooy ñëw ñu nag boo waxee ah góor nga nuy góor ñu leen ñu seet loolu mooy tekki ne waxu yàlla ak yonent bi rek ci lañu war a topp waxu keneen mën nañ koo topp waaye aajo na seet itam ba xam kon mbokk yi mel na ni jëpp diine am na ay frontière ay xuduut foo xam ne fa lay yem kenn waratu ko jéggi kenn warul jéggi frontière yooyu lu may koo xam ne da nga gëmul yàlla wala nga nekk moykatu yàlla buy juum ci waxtu wu ne waaye mbir mu nekk am na xadd boo xam ne kenn waru ko weesu diine ju ne am na ko alquran wax na ko wa man yataadda xuduud allah faqad dalama nafsa suratu talaq képp ku jéggi nag frontière yàlla yi lu la jot nag yaa tooñ sa bopp kon mbokki jullit yi ñu war a xam ne kon bokk na ci màndargay jegeek jeexuk àjjina te waxoon nañ ne mooy bërik mooy yàlla ak bëri génn ak topp waaye bokk na ci màndarga yi ba tey yàquk jikko yàquk jikko mu ngi mel ni baat boobu ni ko arab di waxee sax arab da ciy juum arab dañuy wax ñoo fi dàq wax waaye foofu moom dañu fay juum ndax arab bi dañuy wax soo u tarbiya euh, du soo u tarbiya yàquk jikko rek la ndax tarbiya moom bu xasee bu bu tarbiya xasee ñëw rek dootu nekk sa yi kon nag euh, ñàkk am axlaaq muy jikko yu rafet waxtu woo xamee ne jikko ju rafet néew na waxtu woo xamee ne ak baax jikko ci yàlla néew na waxtu woo xamee ne bëgg alal siiw na booye boo nga xam ne màndargam mujjug jamono yegg si na ko kenn ci ñun sikkut ci yooyu ma wax ne am na fi ñu toll benn waay mosoon na toog ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam hadis la bu siiw ma ngi ci saxihu muslim yonent bi alayhi salaatu wasalaam jibril ñëwal ka ndax xam nga malaaka malaaka ñoom du ñu nekk jëmma joo xam ne day def taxayuz ma luy maana taxayuz euh, jëmma joo xam ne tey dañ koy mën a localiser ci benn béréb malaaka du mel noonu ñoom seen jëmma ak leer waaye waxtu wu neexee yàlla waxtu wu neexee yàlla mu yebal malaaka sàkkal ko jëmma juñ mën a localiser pour mu mën a ñëw ba indi benn communication ci mbiri bés penc ba tey ndax jege naam tegtal boobu la ñuy indi yonent bi toog ba yàgg rek benn waay daal dina dareet ñëw sol yére yu weex tàll ñaqul mel ni ku dawoon bay sonn taqul suuf mel ni ku doon waaxu dal di noyoo rek yonent bi fay koog saxaaba yi rek mu dal di toog ba mu toogee rek dal di ne eh, Muhammad wax ma wax wax waxal ma ci bis pénc yonent bi ne ki koy laaj day ki mu koy laaj gënu ko koo xam mu ne waaye waxal ma ci ay màndargaam mandargay jeex ak àddina mu daal ne ko loola ab jéebéer di jur boromam bu ñu demee ba kookee doon sàmm gàtt ya daan doxee tànku neen léeg-léeg dàll wi dog du ko mën a defar bu ñu demee ba kooku di tegale ay taaxi kaw xamal addinaa ngi jeex loolu mu ngi caar bay na xadis axbirni an saa mu ne man man mal masulu anha bi aalama min assail qaala axbirni an imaratiha قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة عالة رعاشا يتطاولون في البنيان رواه مسلم في الصحيح ñaari mbir yu am solo ngi fii jéebéer jur boromam luy maanaam loolu loolu gis ngeen ko yéen ñëpp loola moo doon nit dafa baaxoon nit dafa gore woon amoon conscience buy dund waaye balaa àddina jeex nit dina toog a toog ba dootul gore dootul am jom dootul ñeme dootul sàmm askanam ndax dootul rus ndax kersa dootu ko am su ko defee ni famille yi meloon ñu ne famille bii nangam bi nangam kii baax ci diine kii mel nangam nangam kookee nga xam ne ci famille amaan na démb dañ leen waxoon ne ay jaam lañ dañ leen moomoon démb nga xam ne damaa aadama fu mu toll ma ngi naan famille sàngam ak famille sàngam jikko joojale ak jom jooje danañ ko ñàkk ba bu neb jaam la it bu rafetee da ngay takk boo ci amee doom antaliidal amatu rabbata jébér bi jur na boromam loolu la bëgg a wax li mu bëgg wax rek mooy bu ñu toogee ba kersa ak joom jeex rek bis pinc ngi bëgg ñëw loolu rek la bëggoon wax waaye thème bi sax nekkul ci xeet yeeg askan yi ndax loolu meneen mbir la mënoon nañ ci wax yeneen i mbir waaye mu wax ne nga seet ku rafle kooka woon démb ka doon sàmm gàtt yi démb jamono soppeeku ba muy tegalee étage gis ngeen ko léegi mu ne su boobaa addinaa ngi jeex benn tegtala ngoog ma ngi ci sayu muslim Alfayda FM bokk na ci màndarga yi mujjug jamono ba tey ak jegeek euh, jeexuk àddina wax naa léegi ne yàquk jik yonent bi alayhi salaatu waxoon na benn wax wax jooju mooy nekk suñu tegtal nee na hoon laa yow yawmun illa wallazi baadahu charrun minhu amul benn bés buy ñëw lu mooy bés ba ca nar a topp moo gën a bon ci wàllu jikko Alfayda FM moo tax yonent bi ne laa yaati yowmun illaa walazi baadahu charrun minhu bokk na ci mandargay axiru saa ba tey walla nga wax axiru zaman waxtu woo xam ne doomu aadama yi dootuñ laaye biir laaye biir buñ ko bàyyee gis nga léegi laaye biir ni mu néewee boo fi nekkee borom xaalis naa gaa yi ne borom barkeeg boroom xaalis bokkut boroom xaalis alal lay am borom barke nag nit ñi dañuy yaakaar mu ñaanal leen borom xaalis kay jox ma rek borom barke nag ñaanal ma la borom xaalis ma danga ko naan jox ma kon ñaar yooyu bokkuñu waxtu woo xamee nag ne borom xaalis bi wala borom nguur gi kenn dootu ko laye biir kenn dootu ko ñemee wax dëgg wala borom daraja ji kenn dootu ko ñemee wax dëgg sañ nga koog mën nga koog kooku dalay lay foonto nga loolu léegi ni mu bare waxtu woo xamee ne borom doole ji jote naa keneen rek ku ñëw dinaan kii da lay foonto xam na ne doo moromam laye biir amatul luñ ko waroon a wax luñ ko waroon a wax ne santal yàlla yàlla mi la def nii def ko nii war naa tax lu la def nga bàyyi ko waaye duñ ko def waxtu woo xamee ne laay biir léegi bàyyi nañ ko booye boo nga xam ne ñoo ngi ci mujj ak jamono waxtu woo xamee ne kuy def musiba kenn du ko ci génnee booye boo xam ne ñoo ngi ci mujj ak jamono te yonent bi waxoon na ne waroon nañu jël itibaar waroon nañu jël considération li mu wax ndax nee na woon addiinu an nasiha euh, se leen yéen ñu jàng bayaan waxut waxut addiinu nasihatun ñaar yooyu boo xamee bayaan xam nga ne bokkut addiinu nasihatun muy mubtada ak xabar rek mubtada mi nekk maarifa xabar ji nekk nakira dikk dikka musnad yi ñëw musnad wéeru ci duwut loola ndax su doonoon loolu kon danga naan kon day mel ni diine na laay biir ci la bokk waaye du moom kenn waaye bi mu ko defee taarif nag ne addiinu an nasiha da nga naan addiin an nasiha moomay moom mooy moom ci boppam rek mooy laaye biir waaye du leneen donc euh, def taarif ñaari euh, mubtada xabar bi wuute na lool bu xabar ji nekkoon nakira ci ulamaul bayan ndax kii moo koy jox doole dafa wane ne laaye biir daal bu amatu diine amatu fa kooku mu ngi ci saxihu muslim ad diinu an nasiha bokk na ci màndarga yi euh, jege jeexuk jamono ba tey waxtu woo gisee ñuy xotti ormay diine waxtu woo gisee doomu aadama yi jublu ci bokkaale ak yàlla waxtu woo gisee xiram ñu di ko jaamu waxtu woo gisee ay woote yu amul ay woote yu jëmee ci yàlla te amul ba doomu aadama di ñeme bay woote ne yàllaa ko yónni am na këlay woote nag wilaaya kee woote na xutbaaniya kee ne na moom moo fi man kee ne na ñëpp moo ci sut kii nangam kii nangam te lu ci gën a bari say nit la koy wax rek nga gëm ko waaye xam nga sa bopp bu la nit ñi waxee ne yaay nangamit war ngaa xam sa bopp borom euh, shuara wax na ko ne na ne na ida xaddasat ka nafsuka annaka qadirun ala ma xawat aydi rijaali mu ne fa kaddi bi boo toogee ba sa ba sa xel ne la yaa fi man yaa mën ñëpp mu ne ne ko da ngay fende manuma fi waaye witam waxtu ngay wootee ak wilaya waxtu ngay wootee qutbaniya waxtu ngay wootee dangay ngay dem arash da ngay def nii def naa bu nit ñi la wax na gaa yi ne dañuy nax rek gis nga doomu aadama yëpp fii la ñuy fanaan ci suuf kenn kuy naaw ci ko wallahi amut dañ lay nax rek gis nga euh, al al al al qanunul jazibiya ñi doon jàng physique ñi jàng euh, physia xam nañ ko loo yëkkati rek am na lu koy ñoddi day daanu lu dem fii ba ci ko nga bàyyi day wadd ku ñu yóbbu fii rek da wadd parce que loolu mooy qanunul jazibiya kooku ilmi la ñu jàng physique xam nañ ko donc kenn du dem ci kaw borom laaf yi rek kay naaw ko amati laaf doo dem bu lay bàyyi fii da ngay wadd xam nga ku baax ci doomu aadama yi mooy koo xam ne bu nit ñey nelaw yaa ngi jóg di julli kookaa ci baax waaye kuy naaw ak kuy dem ci kaw ak arash arash mooy lan ndax xam ngeen ko ñu bari dañuy yaakaar ne arash benn mbaar la wala benn béréb la bu nekk ca kaw asamaan yi ay nit di ca daje ji dee wallaahi loolu xanaa ñàkk dégg alquran ak euh, am yu yoo xam ne ñenn ñi bëgguñ ko wax rek ndax yaakaar nga ne boo ko waxee ñu ne ah yow kan dëkk doo dara fi ngay fanaan nga bëgg nax nit ña ngay wax naan arsh arshullaahi lugatan arshullaahi maxluqaatu lépp lu yàlla bind rek mooy arsh mooy ñun ñëpp ñooy arsh yàlla ne ci suñ kaw nekk gi yàlla nekk suñ kaw du nekk du nekk kaw ak kaw ak béréb mais nekk kaw ak maanaa la maanaam moo ñu not moo ñu not istawa ala al arche ay galaba wa qahara ala arche wa arshullahi maanaahu maxluqaatu laysa hunaka ma yusama bil arche fi fawqa aw taxta aw fi kulli makan arshullahi maanaahu maxluqaatu kullu maxluqin min arshillah wallahu istawa alayna wa galaba alayna wa qaharana hada maanaa tax na ba kenn du dem ci kaw fii rek la ñuy nekk alquran wax na ko minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum fii laa leen di bind fii rek ngeen di ne fii ngeen di dëkk fii rek ngeen di deeyee fii ngeen di nekk dekki sax fi ngeen koy defee minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha fii rek ulama yi dem dañ ci asamaan si doon seeti weer wi ba yegg fa am na sax fa bàyyi seen drapeau réew ñu yaakaaroon ne doomu aadama mën na fa dëkk jéem nañ sotteegul de waxuma du sotti waaye sotteegul li tax sotteegul moo di ne borom bi dafa waxoon ne fii la ñuy mën a nekk gis nga ab yoon sax boo ci duggee boo ko seetloo balaa ñoo naaw xale yooyu dañuy taxaw indi benn masque def ko ci seen bakkan naan la bu ñu demee ba noyyit lii ngay def ci sa bakkan moo di fii yàlla bind doomu aadama war fi mën a noyyi am fi oxygène fii la mu ci qishratul ard li wër suuf si boo ko romboo benn hauteur bi rek oxygène bi ngay noyyi jeex na tax na ba léeg-léeg dañ koy ñàkk buñ ko ñàkkee ku ci newut bi na masque boobu pour di ko wutaat gaañu doon dem ci weer it ku ne da ngay butilu oxygène boot ko di ko noy balaa jeex ñu ñëw ndax fii rek lañu la ñu prévoiral pour ñu ne fi moo tax gars yi kenn demut duñ dem de waaye nag waxtu woo xam ne woote yooyu bari na ku nekk di woote lu mënut ci yàlla moo moo mën lii moo def lii mu alak ko diw ko def diw alak ko mu nangam nangam woote yooyu bu baree muy al idiaatul kadiba booy boo nga xam ne ñu ngi ci mujj ak jamono ci dem nag ba ku dem sax ba romb yooyu yépp woote na yàllaa ko yónni yàgg ngeen ko dégg nangami at yu ne am ko woote yonent yàgg na dippi musaylimatul kaddaab yonent bi ko tuddee woon kaddaab waaye musaylima rek la woon musaylima njëkk naa woote yonent ba dem moom moom sax moo rawoon gaa yi koy woote léegi ci jamono yele ndax moom demoon na ba taalif alquranam demoon na ba ne yàlla nee na wala adiyaati dabxan mu ne wa taaxinaati taxnan wala ajinaati ajinan demoon na ba defar alquran waaye kaddaab la woon rek dama aadama dana dem bay woote ne yàllaa koy yónni bay woote ne mën na dara ci yàlla xam nga li may yéem nit ku réer ki woote réerum euh, yéemuma li ma yéem daal mooy ku ñu fonk ci yàlla nga woote lu amut te xam yow xam nga ne amut yow boo wéetee daf lay wóor na yow doo loola ndax nit nit a fi gën a xam boppam balil insaanu ala nafsihi basira nit a gën a xam boppam li nga mën xam nga ko waaye yéen tamit waxoon ko nee na balaa balaa bés penc ñëw am ñu bari ñu fi taxaw di woote ne yàlla moo leen yónni nan la xadis bi tëddee laa taqumu saa xatta talxaqu qabail min ummati bilmushrikin wa xatta yucbad al awsaan innahu sa yakunu fi ummati kaddaabuna thalaathuun kulluhum yazaamu annahu nabi wa ana xaatimu nabiin laa laa nabiya baadi rawahu tirmisi fi saxiixi ah jooju wax ku ko waxoon ku ma yonent bi ñu tuumaal la waaye nag ki yàlla yónni di mooy wax nee na balaa mujj jamono ñëw fokk ngeen gis li gën a bari ci sama xeet bokk ci yéefar yi bu leen yaakaar ne ñun ñi ñëpp nekku ñuy mushrikuun ñun ñi ñëpp nekku ñuy muwaxiduun ay mushrikuun a bari nañ ci ñun parce que shirku dafa jafe day am lu tuuti nga def ko rek nekk mushrik tey doo ko yëg ma jox la benn misaal bu tuuti moo bari ci nun ngeen day jot rek nga ne barkib diw géñ nga ci ku dul yàlla ku géñ ci ku dul yàlla rek bokkaale nga yàlla ndax ngéñ ni mu fooree yàlla rekk ku yàlla loo keneen koo ci xajal tooñ nga koo ko tooñ sa bopp omar ibnul xataab ba mu ne bi abi anta ya rasulullah ko wax lu ne ko omar man kaana xaalifan aw li yasmut kuy géñ na nga ci yàlla wala nga noppi lan mooy ngéñ ci usul lu muy tekki ngéñ mooy lii day naruma ko woon jël waaye nag comme tudd naa aw tur ba lënkale na dinaa ko def loolu waral na ma bayaan ne mooy ilzaamu maa laa yalzamu billaahi danaa ko jël bu ko nit waxee naru koon a jël de waaye wax googu mu wax ba tudd yàlla sharia nee na fokk na ko jël ndax yaa ko yaa ko géej loolu ilzaamu ma la yelzam ñu ne nag li lay waral lu warutoon ci yow loola tur yàlla rek moo ko yelloo tur koo ko def tooñ nga kooko tooñ sa bopp kon nag man kaana xalifan falyaxlif billahi aw liyasmut loolu tuuti rek la ci shirk moo koy wax lu yaatu la ndax yeneen bi nee na moo gën a nëbbu dabbati li moo tax mu ne balaa àddinaa jeex lu gën a bari ci sama xeer ñoom ñëpp ay mushrikuuna la ñuy doon tey dinañ jaamu xiram jaamu xiram moo bari ci nun gisoo fii ci nun gis nga jàmm xiram jël aw xeer teg ko di ko jàmm ci la bokk waaye taati kur yooyu ñu samp ci sotti soow ci la bokk waaye nag woowu ñuy rey jël deret ji di ko ci sotti wala ganaar ga ci la bokk ndax ab xiram rekk la waaye sëriñ ba ne ne euh, saraxel nangam defoo ko ngir yàlla da nga ko sarax ngir nangam ji ngir dàq lor gi wala xëcc njariñ li ci jaamu xiram gi la bokk waaye foto ba nga teg ci sa kanam booy julli itam ci sa penku néeg ci la bokk ndax booy julli di ko xool ndax da ko fonk lool am na foo ko teg waaye foto ba ngay takkit nag bay takk ay nit ay doomu aadama ci la bokk kat ndax ci xiram rek la yaatu na yaatu na te noo ngi ci mu dal di ne waaye ak lu mën a am nag danañu woote ku ne na yonent la waaye nag benn yonent du am sama gannaaw xayra annahu laa nabiya baadi waaye ak lu mën a am yonent mënatul am sama gannaaw sallallahu alayhi wa xam nga lu waral yonent du am gannaawam yaatu na li ma ciy tënk rek moo di ne comme diineem moo folli diine yépp te duñ ko folleeti comme téeréem moo nasxu téere yépp te kenn du ko nasxooti kon kay bu beneen yonente ñëwee wala beneen téere wala jeneen diine kon folli nañ bosam ndax diine ju ñëw rek dana folli jëwe yoon te moom yàlla ne na ko sa alquran ji moo fi des ba faw inna nahnu nazalna dikra wa inna lahu lahafizun dañ koy wattu du soppeeku du yàqu du folleeku kon beneen yonent du mën a ñëw en tout cas ku wootee yonent daal mënoon nga kaa weddem loo ci wax ju gàtt nga ne ko indi sab téere ku woote ne yàllaa ko yónni da nga ko indi sab téere mu won la téere bi yàlla wàccee ci moom rek nga seet ba xam bu fekkee dafa indi téere bi wàccee woon ci yonent bi nga ne lii la bayaan tuddee taxsilul xaasil lii amoon na ba pare soxlaatun loolu beneen riwaay ba dafa wax ne laa tazaalu taifatun min ummati ala alxaq laa yadurruhum man xaalafahum xata yaatiya amrullahi wa hum ala dalik yenent bi ne waaye ak lu àddina jafe-jafe-jafe dana am as mbooloo ci sama xeet mbooloo moo xam ne ñoom ci dëgg rek la ñuy nekk dana am sax ñu jéem ñu jóg jéem leen a lor ak gàllankoor mu ne waaye duñ ko mën ci dëgg la ñuy nekk rek ba mbiram yàlla yi ñëw kon te mbokki jullit yi su fekkee dañuy gëstu asbaabu aaxiri saa muy sabab bi mujjug jamono mën nañu wax ne yónnee ku yónent bi alayhi salaatu wasalaam yónni gi yàlla yónni yónent bi alayhi salaatu wasalaam rek day na tegtal ci ne ñoo ci mujjug jamono ndax mooy mujjug yónent yónent dootu ñëw te kooku mooy nekk yónent ba yowmal qiyaam mooy tekki ne keneen du ñëwati kon day bëgg a jeex moo tax loolu dalil la ci teew ak zaman ak jege ak jeexam moo tax yonent bi wax waxoon naa ko muy tàmbali ne nee na bu istu ana wa saata ka haatayni yonent bi nee na bi ma yàlla yónni sama dikk ak bés pénc nii la rawante muy baaraamu joxoñu bi ak baaraam bi ci digg bi bu istu ana wa saa ka haatayn baaraam bi lim bi bariwut mu ne bi ma yàlla nekk fi àddinay jeexee nii rek la mel kon loolu mooy tekki na ñoom ci axiru zaman wax jooju mu ngi ci saxihu tirmisi bokk na ci alaamatu axiru zaman bari fitna fitna yu bari anarchie yeeg fawda yu bari ci nit ñi fitna yu bari ak fawda bi ba léegi mel na ni àddinaa leen gënal àllaaxira waaye fitna bu ñëwee bu fekkee ne la yonent bi waxoon defuñu ko ca li muy tekki mooy àddina ngay waaj jeex bu fitna ñëwee lu ñu waxoon ne moom lañu war a def fitna bu ñëwee téyel saw làmmiñ bu ca wax téyel say cër bu ca jëf loolu mooy fay fitna waaye fitna ñëw nga toxal xibaar bi yóbbu fële kii toxal yóbbu fee kii dem yóbbu fee kii wax ca kii jóg jëf ca fitna du fay li muy tekki mooy bu doomu aadama mele noonu ci jikko léegi àddina jeex yonent bi wax ko sa takunu fitanun mu ne alqaa'idu fiha xayrun min alqaa'imi walqaa'imu xayrun min almaashi walmaashi xayrun min assaa'i rawahu tirmisi fi saxix waxtu fitna ci mujj ak jamono waxtu woo xam ne doomu aadama da ciy bëttante ak ay doomu aadama mën na ci topp fitna ba far ce nekk yéefar fitna boo ko moytandikuwul rek da nga far jëlee kéefar wala nga jëlee ca nekk seytaane bu bari pexe boo xam ne da nga yàq sa bopp yàq sa diine yàq sa xeet moo tax yonent bi ne baadiru bil amal fitanan ka qitaai leyli almudlim yusbixu rajulu muminan wa yumsi kaafiran wa yumsi muminan wa yusbixu kaafiran yabiu ahaduhum diinahu bi aradin min addunia rawahu tirmisi mu ne fitna ju lëndëm ba mel ni daggiti guddi da ngay koo xam ne muy xëyee këram julit la woon waaye dugg na ci fitna wax ca ba balaa muy lay doon ndax jëf na jëf yi yéefar gis koo ne muy xëy amoon na diine waaye dugg na ci fitna wax ca jëf ca jaay na diineem ngir mattum àddina mi rek rawahu tirmisi fitna day ñëw ci mujjug jamono ay fitna day bari bul yaakaar ne am loo lekk am loo naan am foo dëkk rek tax na nga ña tax na fitna sori la déedéet ni dina am loolu ba sottal nag nekk ci fitna ba doon nelawati doo noppalooti yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxtaan bi mu waxoon ci fitna axiru zaman soxnaam suñu naan ummu salamata moo ko nettali nee na استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة آه day na waar Tirmizi loolu nag jigéen ñi la lay wax yonent bi alayhi salaatu salaam dafa nelaw ba guddi rek mu dal di ne bëreet jóg dal di ne subhanallah soxnaam umu salamata na ko yow mi yàlla yónnee lu xew mu ne dama bëggoon ku ma yeel jigéen ñépp ba ñu dégg fitna yi yàlla wax ci ñoom dama bëggoon ku ma yeel jigéen ñi ci bergenne yépp ñu déglu ma mu ne ko waaw loo leen di wax mu ne sama borom moo ne ma rubba kaasiyatin fi dunya ariyatin fi l axira bari na ku bari yére ci àddina te àlaxira da ngay rafle ñu ne ko yow mi yàlla yónni loolu nu muy demee mu ne bu ñu demee ba jigéen aw yaramam du sangooti bu ñu demee ba aw yaramam daf koy gaaral ci mbedd yi. bu ñu demee ba li ngay denc ñu naan diway denc diw te foo dem taseeg la ngay denc parce que nga looy denc loo xam ne foo dem dajeeg moom ndax dencu naa ti mu ne bu loola amee loolee ñuy denc te foo dem dajeeg moom. yaram woowee ñu war a nëbb te footalu di ko di ci teg sa bët mu ne su baree fokk fitna am. ndax ka koy xool du ko bàyyee noona faw wa mu topp ci wala mu wax ci wala mu jëf ci te moom it moom it loolaa tax muy muy gaaral boppam ca mbedd ma mu ne su boobaa xamal jamono ngi bëgg a jeex ñu ne ko yow mu yàlla yónni buñ tolloo foofu nag lan moo cay musal nit mu ne bu boobaa li ma leen digle mooy bi tibaayi ulil amri na ngeen di topp boroom xam-xam yay digle tey tere na ngeen topp kon waxi ñooñale ndax la lañuy diglee ka tere yépp noonu la ko yàlla di waxe ci loolu ku naan way ibnu xujar déggee na ci baayam nee na dégg na ki yàlla yónni muy wax naan rajulun yasaluhu an ilfitnati fi axiri zaman mu ne arayt in kaana alayna umaraun yamnaunana wa yasalunana xaqahum fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa innama alayhim ma xummilu wa innama aleykum ma xumiltum rawahu tirmisi nee na mu jëg jamono bu fitna baree la koy waral mooy ñàkk a topp ulil amri ulil amri ñaar rek la ci sharia kenn ki xam-xam la am di ko xamle nañu topp la muy wax kenn ka dafa nekk buur yàlla jox ko kàttan topp leen ko mu ne gis nga ñaar ñi buñ bañee toppal la ñu rëdd dootu leen jóg ci fitna mukk mukk mukk saxaaba yi ne waaw yow mi yàlla yónni bu nu amee nguur goo xam ne nag moom du nu toppatoo daf nuy xañ suñuy droit daf nuy laaj li nu am xanaa ñoo ñu koy waruñ leen a topp yonent bi ne dégg dégg leen waxi ñooña te toppa leen ndax ñoo ña lañ def ci bàkkaar ñoo koy gaddu yéen it lu ngeen def ci bàkkaar yéen a koy gàddu te ñàkk leen a topp ci bàkkaar yi la bokk rawahu tirmisi fi saxi kon mbokk màndargay jege jeex ak jamono bokk na ca yàlla dafay yëkkati xam-xamu sharia lan mooy yëkkati xam-xamu sharia mooy dañuy toog ba ñi xam sharia dootuñu fi nekk loolu bul yaakaar ne yàlla day dugal loxoom ci dënn ñi xamoon di génnee xam-xam bi déeréet dafay bàyyi boroom xam-xam yi bu ñu dee rek ñi leen remplacer duñu xamati boroom xam-xam bu dee rek ko remplacer du xamati léegi nag noonu ca tollu bari na foo xam ne ni ñaa nga doon daw jëm fa ngir xam-xam xam nga lu fa desam mooy doomi diw ak mooy sëtëb diw loolu rek fa des yéen ak yéen a ma ko gën a xam bari na fu ñu daan daw jëm ngir xam-xam. te léegi la fa nekk mooy doomu diw la wala sëtub diw la mu nekkoon nag bu ñu yëkkatee xam-xam noonu ña xamoon dem ña leen remplacer xamuñu xamal àddina ngay jeex ñun nag dañ ci dem be kii doomu diw la daal fi mu toll ci nun kii moo xam nangam tolluwut ko ci nun waaye loolu yëpp ñàkk roy nag yeneen bi la ak ñàkk seen histoire yonent bi alayhi salaatu wasalaam abdullahi baayam yonent bi tax ñu xam kuy abdullah xam-xam ba ko yàlla jox moo tax ñuy xam abdullah di ko tudd nekkoon kenn du ko tudd ndax am na même fii sax kuñ fi topp wala ñu fonk la ngaa defoon say preuve ci xam-xam waaye sa baay kenn xamu ko loolu xam ngeen ko ah kon nag mbir boo koy defar nga nga koy delloo ce na meloon jàng jàngale bu fa amatut jaratut a dem inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim loolu alquran la bu ñu yëkkatee xam-xam sharia ba amatut ña xamoon dem ña leen wutu xamatuñu réer rekk fay ne nee na bu boobaa ak ay yëngatu yëngatu dina bari ak fitna moo tax yenent bi ne inna min waraikum ayaaman yurfau fiha al ilmu wa yaksaru fiha al haraju qaalu ya rasulallah mal haraju qaala alqatlu nee na mu jëg jamono dinañ dem ba yëkkati xam-xamu sharia ña ko xamoon dem ña leen wuutu duñu xamati su boobaa lu ñu naan haraj dana bari ñu ne ko luy haraju mu ne ngeen toog di reyante rek ŋaayoo xuloo féewoo ki a topp fii ki gën a baax le ki yee gën a baax ki yee gën a sellale nangam nangam xëccoo dal di def munazaa loolu rek moo fi nekk ci léegi nekk ay kuré kuré mbir mu ne ñu xëccoo ko di xëccoo bay xëccoo ci diine dama dama dem di xëccoo bay xëccoo ci di xëccoo bay ca bunt jàkk ja kee limaan jeeg ku bokk ci nangam du jiiteek lu tax nangam nangam ak lislaam nekkatu fa bakkan rek loolu yépp ci mujj jamono da ngeen ko gis bokk na ci màndargay loolu ma ne bari wuute ak bari reyante bu wuute bi tàmbalee ak reyante bi dootul jeex mukk ci doomu aadama ba yowmal qiyam gis nga yàlla bi mu ñuy wax ne bu leen wuutee wuuteeg diine moo gënoon a garaaw xam nga bu ñu wutee idéologie wala ñu wuute ci xalaat mën nañoo dëpp wala bu jataay ba jeexee ku ne dem saw yoon waaye wuuteeb diine ci xol yi lay jàpp seetal rek léegi fu ñu toll ci wuuteeb diine soo bokk ak nit ki yoon sax léeg-léeg doo ko nangu sax am ay jabar waaw moom du jullit yow ñu bokk jàkk ji bokk julli bokk dëkk bi ngay julli may julli nu bokk di julli nga gis ko taxul nga jox ma benn fonkeel na am benn béréb ñu tase fa nga jox ma la ah sa nag yow de tey maa ngi door a fonk nag biñ tase fi waaye biñ tasee jàkk ji kat fonkoo ma néeg yàlla néeg yàlla fonkoo ma fa néeg mbindeef fa may fonkee loolu diine la waaye ki yàlla yónni woon waxoon na ne daan daan def loolu bi ñu alquran di wax naan wa an aqimu diin wala tatafarraqu fiihi na ngeen taxawal diine te bu leen ci wuute ndax wuute ci diine moo gën a garaaw wuute ci diine moo gën a garaaw fuuf wuute ba àddina ndax wuute bi diine wax naa ne ci xol lay lay jàpp dama dama dem na ci bareyante ana ñaata këri diine wuuteb caaxaan ci diine xëccub àddina tax ñu reyante ba duñ tuddanteeti bu ñu bokkee ndey bu ñu bokkee baay même buñ bokkee dëkk même buñ bokkee yoon ñaata la uteb diine baaxut te waxoon nañ ne dana am mujj jamono mais yeneen bi waxoon nañ ko moytandiku nee nag bu óoti ba bu tàmbalee bu ngeen ci xasee dugg yowmal qiyaam rek isa wudia sayfu fi ummati lam yurfa anha ila yowm al qiyaama ngeen ko tàmbalee dootul jeex su ko defee nag mujj ak jamono bu ñëwee te noo ngi ci kat jikko yi dal di soppeeku jóge ci baax jëm ci bon ña amoon imaan dal koy ñàkk dootuñu faale waxu yàlla waxu keneen moo leen di gënal wax naa ko gaañe ne leen yàgg naa leen wax ne bu ñu taxawoon fii fott su ne ngir yàlla ay dërëm rek lay am waaye boo ne ana waa kër diw gaa yi ne bërët nga yaakaar ne diine lay du yàlla yàlla taxul xam nga ne ndax yàlla mi tax yàlla mi nga xam ne alladi tasaaluuna bihi yàlla mi ngeen di laajante bu ne ngir yàlla di am ay dërëm bu ne ngir diw ak ana waa kër diw ku nekk jóg àddina la ak sot sot loog bakkan yàlla taxatut an seet suñu bopp ana fan lan jëm waaw loolu bakkañ su ko defee waxu yàlla dootu ko faale diw nee na moo la gënal ay nit dinañ ci dem ba bu ñuy waxtaanee yàlla aaya bu yàlla waxoon xadis bu yàlla waxoon duñ wax ne yàlla nee na dañ naan diw nee na ndax mu neex nit ña fu diw jële du yàlla ko wax tee nga ne yàlla nee su ko defee yonent bi alayhi salaatu nee na ñooña nag danañ ñëw ci mujjig jamono danañu wax ay wax joo xam ne ah, daanaka waxi ku dese am xel la mu ne ñooña buñ jàngee alquran tam nag alquran ji du romb seen baat foofu rek lay yem du àgg ci biir su ko defee jaar ga ñuy jaar ci alquran dañuy romb rek mel ni fett gu ñu sànni muy dem waaye duñ ca jariñu sax ndax àddina rek moo nekk seen biir mu ne yaxruju fi axiri zamani qawmun ahdaasu al asnaan sufahawu ahlaam yaqra'uuna alquran laa yujawisu taraqihim yaquluuna min xawli xayri lbariyati yamruquuna min addiin kama yamruqu sahmu min arramiya rawahu tirmisi mbokk yi àddina mi du mën a jeex lu may ay fitna bari ak i xuloo ak xeex ci nit ñi sikka nekkut nekkut ne amul benn sikk ne xeex yi bari na léegi ci ci àddina si réew sàngam ñi ngay xeex bu loolu fayee réew sàngam xeex lu ñuy xeex amu ci kenn ku la mën a wax la ñuy xeex lu mu do ñay xeex sax kat xamuñu ko da ngay toog toog dégg diggante réew sàngam ak réew sàngam ñu ngi xeex léeg-léeg ñu ne la ab frontière la ñuy xëccoo te la ñuy xëccoo kenn soxla wu ko ca léeg-léeg muy lu ñàkk solo kon nag lañuy xeex xamuñu ko moo di ne mujjug jamono dafa ñëw jikko dal di yàqu fokk ñuy xeex mën duñ mën a toggati su ko defee rey ak rey ak ràppal ak yàq rek moom la àddina si léegi di nekkee amul benn bés lu may danga dégg benn xibaar boo xam ne ña ngay yàq lu ñu waroon a defar ña ngay damm lu ñu waroon a taxawal ña ngay daaneel lu ñu waroon a tabax bés bu ne rek boo déglu rajo dégg ay xibaar yoo xam ne ak yàqu-yàqu la fenn ñu ne doomu aadama dafa avancé déedéet dafa dellu gannaaw état bi raw ci àddina nga xam ne mooy akbaru dawlatin fil aalam buy benn wala buy ñaar ñooñu luy seen liggéey léegi. defar ay jumtukaay ak ngànnaay yoo xam ne fu mu fu mu yëngatu rek doomu aadama dal di jeex. walaay seen liggéey ñu ne dañoo avancé. bu ñu avancé nag ñu defar. Alfayda FM. bari topp suñu bànneex. bëgg àddina ba àddina gënal ñi lu nekk. loolu moo tax be nit bi dañuy xiir ci bëgg aw yiw. dañu xiir ci ñuy waajalal alaaxira. dañuy xiir ci ñuy jëf ngir suñu alaaxira baax. te nit ku nekk li nga jëf yow rek lañ koy fay. wa an laysa lil insaan illa alquran mile ak hadis bi ku ko wax al ñi ni ko yàlla waxee doo ko wax fenn te amul ku mer ndax fokk dana am koo xam ne day yaakaar ne lii moom rek moo ko moom moo tax alquran dañuy wax naan hadis boo xam ne abi umayata saa euh, shaabani daf ne waxoon naa ya aba saalabata kayfa taqulu fi hadi l aya ya ayuha alladina amanu aleykum anfusakum mu ne ko nooy firee li yàlla wax naan ee eh, yéen julit ñi toppatoo leen rek seen bopp mu ne loolu lu ngeen koy firee mu ne wallahi laaj nga ko ku ko xam tey lu tax ma ne yow laaj nga ko koo xam mu ne man mii nga ko laaj dama ko laajoon ki yàlla yónni ci noonu alayhi salatu wasalaam dama ne ko woon li yàlla wax naan alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza tadaytum lu muy teg toppatool sa bopp rek boo toppatoo sa bopp daal kuréel it yow sa yoon nekku mu ne aaya bi noonu la euh, lu muy teg mu ne ko laaj nga ko ko xam laajoon naa ko ki yàlla yónni waaye daf maa waxoon ne i'tamiru bil ma'ruf wanhaw anil munkari hatta iza ra'aytum shuhhan muta'an wa hawan muttaba'an ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكم أياما فالصبر فيهن كالقابض على الجمرة للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملهم رواه أبو داود والترمذي mu ne aaya bi li muy tekki mooy bul yem ci def lu baax rek yaakaar ne mucc nga waaye da ngay def lu baax tey digle lu baax xam nga baax dugul baax ci yow kenn baax mooy baax ba nit baaxee ci yow wax ba nit baaxee ci loola jëf ba nit baaxee ci loola waaye baax yow kenn rek loolu lu tuuti boo nekkoon suuf yaa ngi ci tëju si mu nekk di julli rek di woor tëju yaa ngi yaakaar li ngay def moo baax déedéet ndax loolu yëpp sa bopp rek defaloo kenn leen danga nga war a génn jàngale dajeek nit ñi confronté ak problème sociaux yi xam li ñuy ci li ñu nekk waxal leen jubbanti leen loolu lañ bëgg ci jullit moo tax mu ne aaya bi li muy tekki mooy bu leen sa bopp rek waaye digle lu baax itam tey tere lu bon mu ne bu jamono yàqoo nag ba nga gis nit ku topp ba kanam ñu toppaale ko ca nit ku topp ba kanam ñëpp topp ko ca loola topp ko fonk ko màggal ko bu defee lu neexul yàlla sax ñu ne ah moom kat moo ko sañ ndax moom nangam la nu mu ko sañee li baax rek baax li bon rek bon kenn na sañu la mooy yàlla kenn na sañu la bay bay li yàlla digle ku ko def dafa manqué rek manqué na jëm na rek waaye sañu ko def ñu dafa am lu mu defoon laaj yi laajuñ ko mu ne waaw lu tax du ngeen ma ko laaj ñu ne ah day yaakaar ne yaa ko sañ mu mer jóg taxaw ne diine jii dafa am lu may sañ te du ngeen ko sañ diine ma yónni du am mukk lu may sañ ngeen ko dal di mer ci jëf jooju kon nag su fekkee ne dëkk nanu xam naa wala xamul waaye yow yaakaar nga ci man loola wala ci sama baay wala ci sama sa àddina ak sa alaxira ne nga mën nga ko teg jàkka ja duñ fa daje samay julli bariwul damay nelaw ba mu naaj sangu ak njampe ba set jëm samay kareem jiwu leer nañ ñu taxaw ñu naan leer gaa ngi nii dama diw rek gis nga leer ak gëm yàlla leer ak gëm yàlla bi yàlla ne siimaahum fi wujuuhi min asari sujuudi duur leer ak ay tat ak kareem ak yooyu le du loola leer ak diine mooy leer ak topp sunna leer ak topp yàlla iza raaytum rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman koo gis mu dëkk ci jàkka ji buñ noddee mu julli ji wax leen ni kii gëm na yàlla wax waaye léeg-léeg léeg-léeg nga yaakaar nga yaakaar ci sa wax ñu bokk dëkk jàkk ji daanaka dooma fa gis nga yaakaar loolu jàmm la du jàmm ak ak bon rek la ak dëng fokk ngeen dem ci jàkk yi fokk ngeen jaamu seen borom ki dàq jàmm yàlla rek moo gën a baax li ci biir yàllaa ko xam damaa dama yem maa nga seen yàlla yàlla xam li mu ci tëj waaye li lim ñu tegtal mooy ki dàq jàmm yàlla moo gën a baax rek baax ba nit baaxee ci yow mu ne su ko defee na ngeen muñ ci dëgg ndax dëgg lu jafe muñ la su ngeen nekkee ci dëgg te muñ ku nekk ci topp sunna ak alquran da ngay mel ni ku téye xalu safara dafay metti waaye da ngay góorgóorlu te muñ mais waxtu woo xam ne bidaa yi tasaaroo na nag comme ni mu tasaaroo léegi ñu nekk ci mujjug jamono ku muñ ci topp sunna sa genn jàmm yàlla gu nekk rek fayug juróom fukki nit yu jàmm yàlla lañ lay fay lu tax ndax yi fëkkaateeg yóbbu nit ñi dafa bari lool boo fexee ba rëcc nag kon mislu ajru xamsiina rajulan lañ lay bokk na ci mandarga ñu taal safaraw sot sotloo safaraw ay kuré kuré safaraw ay giiri giir ku nekk ay sot sotloo di xëcc jëme ci sa bopp loolu ci mujjee jamono lay nekk kon lislaam bëgg ko jullit ñi nañ nekk benn loxo nañu àndante luy tekki li may wax noonu mooy li Abu Dawud wax ci saxiix ne sahaaba yi dañu waxoon yonent bi ne mal asabiya qaal an tuina qawmaka ala dulmin aw an tuina qawmaka ala adulm waxtu woo xamee ne sa giir sa mbokk sa xarit sa kuré bi nga bokk nekkuñ ci dëgg nga dimbale leen ci lu dul dëgg rek mu ne loolu mooy asabiya mu ne mujj jamono lay am léegi kon wax nañ lu bari ci mandarga yi mujj jamono xanaa dag ma wax ne kon nag ma la amal ma lu ñu war a def kon ndax it poser problème war ngaa poser solution te problème am na ba pare mooy mandarga yi ñëw na ne mujj jamono noo ngi ci mais lu war a def nag kon kon ma jeexalee ci loolu lu ñu war a def mbokk yi problème boobule wala bit boobule mooy benn bit bi nga xam ne ci laa waroon a diir jëm mooy bu nu xamee mujjug jamono nag léegi nag nu nuy def xëy na xam ngi rek du doy waaye boo ko xamee nag nooy def nag fa mal amalu idan wa ila ayna natawajjahu idan bokk yi bu nu xamee xel ne ñoo ngi ci qurb nihayatil alam aw nihayatil insan ñun ñi nga xam ne xam nañ ne àddina ngi bëgg a jeex te noo te ñun ay julit lañ wala ñoo ngi wootee ni lislaam ngi ci nun lan lan war a def nañu njëkk wéral suñu gëm yàlla gis nga téere bi ñuy njëkk jàng ci diine muy al axdari foofu la téere ba tàmbale awalu ma yajibu alal mukallafi ci topp tasxiixu imaani kon li njëkk war mukallaf mooy mu wéral imaanam d'abord lu tax su imaan bi wérul dara du baaxati imaan mooy fondement fondement bu amul tabax day daanu gis nga imaan bu wérul jàmm yàlla ga sax du baax benn waaye nee na ma man de damay julli damay woor ndax kama àndal daf ma koo digal léegi ma ne daf la koo digal ma ne ah, waaw bu ma ci digal ci ki ma ko digalee du ma ko def ma ne ko kon de du baax waxtu woo xamee ni iman bi dëgërul li ngay def yàlla taxut du sotti booy joxe sa alal na nekk ngir yàlla sooy jaamu nekk ngir yàlla booy tudd dul yàlla sooy xeetaliku xeetalikul ci yàlla alquran wax na ko da ngay wéet yow kenn dong yëkkati sa loxo di ñaan yàlla xam nga ne ma nga fa di la dégg waaye waaye koo fa tudd ko mooy yàlla wóor na la ne nekku fa mënu faa nekk nag buy dund te bokk leen benn néeg nekku su dundul non plus xam nga ne moom mënu fa nekk moom yàlla rek moo am kattan yi nekk fu ne yàlla dong moo am kattanu nekk fu nekk benn bi saaba yi dañ ne dañuy xettaliku ci yonent bi yonent bi ne kalla laa yu laa yustaxaasu biya innama yustaxaasu min allah ci yàlla rek lañuy ñuy xettaliku ndax moo mën a xettali man dañ maa yónni su su yonent bi mënoon xettali xettali moo ndax dana def xarib uxud ñu rey baayam génnee res wa yëy ko buusu ko ko ne ko sa sa resu baaya ngoog dammab sellam xaañ ko ci jëbi gaañ ko ci óom bi daaneel ko ci pax mi ay saabaam daw lu mu ca mën dara la ci mënul ndax du yàlla ba mu ñibbisee ñu jël ndox ma di raxas deret ji di ko faj ndeysaan doomu aadama gi yàlla yónni na ko bien waaye doomu aadama gi itam ci jëmm ji mu daal di ne kayfa yaflahu qawmun faalu haza bi nabiyihim xaw ma xeet wu def lii seen yonente nu ñuy texeeti ba dugg aljanna yàlla ne ko sori ji nga nag laysa laka min al amri shay aw yatubu alayhi mbiram aljana nag du sa mbir moom kooku ma man yàlla maa ko gis nga alquran boobu bu fekkoon ne alquran jógewut ci yàlla du ko wax loolu mukk bu yonent bi waxoon alquran ci boppam boobu aaya dana ko dindi ndax critique bi ko yàlla teg foofu te it karayoon Hamsatu ba butti res wa yéy ko buusu ko ko mu jëne nekk ci lislaam nekk ab julit bu mag moo tax yàlla ne ko laysa laka min al amri shay aw yatuba alayhim kon nag nañu wéral suñu gëm nañu gëm yàlla daal rek xam nga gëm moom yàlla rek lañ koy def nit mën naa bëgg keneen waaye gëm yàlla rek koo loo gëm wala koo gëm ku yàlla rek musiba ñëw na gis nga sa xol bii ni ci a mel ku ko fa fekk wala lu ko fa fekk ba nga gëmee kooka wala loola ni yàlla rek yàqu yàlla ne man kenn du ma fekk fenn du ma fekk lenn lenn fenn koo ma boole rek bàyyee naa kooka benn waay nee na bu neexee bu neexee yàlla ak yow yonent bi macha allah wa shiita ya rasulallah mu ne ajaalta lillahi niddan ndax da ngay sàkkal yàlla nawle nag coobare dafa nekk ci sa sama ci sama loxo coobare pourtant ñun ñoo ngi koy wax de bu soobee yàlla diw diw diw bu mu bari bari gis nga coobare c'est grave gis nga baatub coobare dañoo xamul nu mu toll ci ci yàlla nguurug yàlla gi boo ci dindee coobare jox ko keneen lu yàllay dese yàlla coobare moom moom moom mooy nguuram ko mu def su fekkee def dara lu may bu soobee yàlla ak yonent bi ak diw ak diw lu yàlla mën a ti kon mel ni bu ñëw ñu ñëwut yàlla du ci du mën a def dara loolu seen moomu mbir nañ nañ nañ wéral suñu gëm yàlla coobare yàlla rek yàlla rek lay sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga su jëlee ci yonent ko na wax yi ñëwut xamul dara dara dikkut mu toog 40 jours dara ñëwut mu am kersa lool gaa yi ne ko nakam wadda'u rabbuhu wa qalaahu boromam ba mu doon wax yàlla bàyyi na ko yàlla bàyyi na ko de ba mu yàgg nag jibril door a ñëw yonent bi ne ku ma jibril yaa man xarit yow nga daan ñëw bés bu nekk ñu laaj mag laaj ma ne bu subaa ma tontu ñeen fukki fan jaaroo ah jibril ne ko sa waay ñun dañ ñoo yëlif rek dañuy wax dañuy wax dem rek ñu dem dañu wax dañ maa waxutoon naa dem léegi lañ ma ko wax ne naa ñëw rek ma ñëw mu door a tontu mu ne ko lu sama borom wax mu ne li mu njëkk wax rek de mooy wala taqulanna li a inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha allah li mu njëkk wax daal mooy bul waxati dara ne da nga ne ndax bu ko neexul dara du sotti kalimatu incha allah fiqhiyan am nañu yaakaar ne boo ne incha allahu nangam rek dana am déedéet incha allahu ko ci wax du tekki ne mbir ma dana am incha allahu ko ci wax day tekki ne gëm nga yàlla yaa ngi koy jaamu mën wax incha allahu te du am waaye nag wax gi dafa war lu jëm ëllëg lu ne rek incha allahu la waaye qawluka incha allah laa yujibu taxqiqa al amri innama yujibu ibadatan wa qawlu incha allah ibaadatan laysa taxqiqan lil amri kon war nañu bu jëkk bi ma ne mooy nañ wéral suñu gëm ci yàlla mooy buur bi ñu war a jaam ñu wéral suñu suñu suñu topp ci waaw qadaw ak qadar ci ulamaul mantiq ñoom teqale nañu ko ndax euh, alqadaru mooy li nga xam ne yàlla dogaloon na ko ci asal bi mu bindagul jaam yi ne loolu war naa am loolu moo nekk ca qadroom kañ lay nekk xadaawu nag mooy waxtu woo xam ne mbir mi jot na booba nag kàttanu yàlla aju ci mbir moom mooma mu dal di am mu ngi mel ni ñoom ñaar benn bi mooy benn bi ndax bu ci nekk sifa la te qadar moom moo nekk sifa mutasilatun bi zaatihi qadaa moom du sifa mutasila bi zaati noonu la ko ulamaul mantiq di teqale comme moom jàng na salaf dana xam li may wax ndax ni ni mu ko laajee ku jàngul mënu koo laaj kon nag alqadru sifatun mutasilatun bi zaatihi wal qadaa laysa sifatan mutasila bi zaatihi bu mu ci teg mu ne jigéen joo xam ji jëlee day yëkkati baatam ca kaw. jigéen ji yëkkati baatam loolu day moom xam nga ulamaa yi dañ ne. wala yujhiri nisaa bi kulli ibadatin idi sawtu awratun mushirun li shahwati jigéen warul biral yëkkati baatam lool buñ koy wax nag ak jaamu yàlla tax ñuy wax leneen moom xanaa sharia xalaatu ko sax ak jaamu yàlla bu ñëwee jigéen bu mu yëkkati baatam suy biral ci julli ak biralam mooy yées biral ak góor tax na ba jigéen du nodd li xam nag mën na kaa def ak biralam dafay xaw a wàññee tuuti waaye nag Lamine man jigéen yëkkati baatam ci jaamu yàlla moo ma gënal fuuf mu yëkkati baatam ci fo te moom boo leen ay yëkkati baat ci jaamu yàlla it ñu dem yëkkati ko ci fo kon nag da leen wax ne nañu wattandiku poma wattandiku yëkkati baat ci seen po ba loolu jeex ñu door a seet nag jaamu yàlla bu ñu koy def fan la seen biral mën a yem. moom day mi ngi continué sax moom Ibrahima Mbodj nee na jàngalekatub arab la. mi ngi wéy di laaj naan dafa bëgg nga tuddal ko lenn ci mandarga yi nga xam ne bi la mooy tegtale ni bisub dekk bi jegeñ na. waaw loolu moom laa wax ba ba tey. kii nag El Hadj Fadilou la. nee na gannaaw ay at yu bari. nit ñaa ngi wax naan am na mahdi bu ñuy xaar. ndax moom. loolu jegeñ na ak teewam wala sori na wala ndax wér na. mbiram mahdi yu. ci ulamaaw yi ay aara yu bari lañ ci indi. am na ñoo xam ne pour ñoom bindkat yoo xam ne pour ñoom. mahdi yu ñëw na ba pare. loola mooy chiites yi iraniens yi pour ñoom mahdi yu am na ba pare waaye nag seen waajooju dana dikkaat ñoo ñu loolu la ñuy gëm 64 dafa naaj benn article al mahdiya fikratun chiiyatun batila alors ñooñu loolu la ñu gëm am na ñoo xam ne dañu gëm ne euh, seen mahdiya bi ñoom it ñëw na ba sottal loolu amoon na ci Soudan bu yàggut amoon na ci Yaman ay mahdi feeñoon ba jeex ñooñu it loolu la woon am na ñoo xam ne dañ ne mahdi yu ba ñuy gëm dikkagul ba léegi waxtu muy ñëwee daal dana fekk addinaa ngi bëgg tukki nga xam ne bu ñëwee rek dana fekk dajal ñëw nangam na lu am na ay xadis yi ci rot donte xadis yooyu ulamaawu sunna ñoomin albani ñu ko sax ndax dañ ne xadisu ahad la waaye terewul am na xadis yu wax ne am na mahdi yu buy ñëw waaye waxtu muy ñëw euh, dafay e, tombe ak yonteele isa ak nangam ak ki nangam boo seetoo xadis bi ci buxaari yi daf ne yushiku yushiku an tanzila yushiku aw shakka yushiku min afaali shakki aw afaalu taqrib kooku ñi xam naxu xam nañ ne feelu aw shakka euh, taabir bi mu waxe ala kulli xaal li nga xam ne moom la ñuy sukkandikoo daal mooy mahdi euh, docteur Ahmad Amin bindoon na ci lal mahdi wala mahdawi noonu la tuddee woon téere bi mahdi amut ku koy dodolu amut noonu la téere boobu tuddoon kooku euh, développé na xalaat boobu indi xadis yooyu ak lu tax ak yooyu waaye li ñuy sukkandikoo daal mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal mooy mahdi ñëw na nag ba eggal jox nañu téere yi téere boobu nag day des nekk mahdi yi ba yowmal qiyam ndax mahdi mooy aji jubal aji jubal nag mooy salawaatullahi wasalaamu ali ñëw na ba sottal nag jox nañu téere téere bi day nekk mahdi yi ba yowmal qiyam loolu daal la ñuy sukkandikoo waaye wax ya nag bari na ci jërëjëf alhaaji Fadilu Gay continuer de laaj mu ni ah wax nañ ni jeexuk àddina jagañ na am na sax ñoo xam ne le aytal nañu sax fan yi nga xam ne bi la ci la yonente bi alayhi salaatu wasalaam di war a génn pour àddina jeex euh, aji lamin jegeg jeexuk àddina moom alquran a ko wax iqtarabati saa wa nchaqa alqamar kon jege na moom alquran a ko wax bi may tàmbali waxoon naa jege bi nisbati ci yàlla ak jege bi nisbati ci ñun ni mu wuutee waaye jege gi moom am na iqtaraba linnaasi xisaabuhum ak iqtarabati saa yooyu yëpp mooy te yàlla bi mu koy wax indiwu siixatul mudaari siixatul siixatul maadi la indi kon jege ga moom mu xaqaq la ne jege jeexu àddina moom jege na amaa nag pour di ko def taxdiit kañ la loola moom mënu la nekk amul kenn ku xam nag kañ wa maa yudrika la alla saati takunu qariba yàlla lu mu wax yonent bi maa adraka ci sixatul maadi dana ko firi waaye lu mu ko wax maa yudrika sixatul mudaari da ko firi wa maa adraka maa hiya mu ne naarun xaamiya waaye wa maa yudrika la alla saa takunu qarib kenn du kenn du ca xam dara bu loolu amee itam euh, ilmuha inda rabbi fi la yujalliha xam-xamu kañ laa dinay jeex ana nga naan weer waag atma ma yàlla nee na ca moom la nekk du ko wax te du ko wuññi kenn du ko xam nee xam ko sa xam gi sax diis na asamaan àttanu ko suuf si àttanu pour xam kañ la bés pencee ñëw ndax xam-xam bu diis la kon nag doomu aadama du ko xam euh, léeg-léeg euh, may dégg sax ku naan yeneen bi du tëdd ci suuf ñaari junne at waaye yëpp nit ñi koy wax rek xamuñ ci dara ndax alquran waxu ko hadis waxu ko wax nag bu ci alquran adduwut hadis adduwu ca te muy diine ku cay wax dangay ngay dajjetu du wér waaw ba tey mi ngi wéy wax naan lan mooy sa xalaat waaye nag lan mooy attede wala lan mooy gis-gisu lislaam la waroon a wax lan mooy sa xalaat ci kuy jullit boo xam ne bi day tux wala mooy lekk yàpp mbaam ndax loolu xaraam na bu fekkente ni dafa xaraam mu ne li ma lu tax mu araam li ma sa xaram man gaawuma ci xalaat ndax sama xalaat bu fekkoon sama xalaat rek la nit ñi duñ ma déglu dañ bëggoon ma wax leen xalaatu diine ak lu alquran wax waaye sama xalaat man kontiwut parce que man benn ndongo rek benn waaye rek laay ci nit ñi sama xalaat amul solo daal jarut ma koy wax kenn bu doon na xalaatul islam moom mën na am solo ci nit waaye sama xalaat moom amul solo bu leen neexee sax du bu ma ko waxee du ngeen d'accord ak man ndax sama xalaatu bopp rek loolu amul solo lekk yàpp mbaam moom daganut lekk yàpp mbaam daganut ñàkk dagan googu du shara yexu alquran la yàlla ko wax yàlla nag bu xasee wax mbir mi xaraam na lim ca teg lu tax man man man du seet lu tax ndax dafa bokk ci yar yar yaru jullit moom moom mi koy laaj sax tey bu nekkoon ak waajuram ci kër bu ko waajur bi ne ko jox ma satala si du wax papa lu tax sa kilifa defal nangam nga ne lu tax du teggin kon nag ku toll yàlla bu ne yàpp mbaam xaraam na lu tax ak xam suñu yoon ci lu tax moom mooy yàlla moom mooy suñu borom moo ñu bind indil ñu diine ne lii bu leen ko def suñu yoon ci lu tax sawaawun xam nañ lu tax wala xamuñu ko dañ ko war a bàyyi rek ku toll yàlla nanga bu ko def sa yoon ci lu tax loo rek la li ma bëgg daal moo di ne ñoom gune yi gëstu yëpp nañuy wattandiku ci ah, ci àttey diine lu tax yàlla digle wala mu tere lu tax nañ ko wattandiku ndax loo gëstu gëstu doo mën a jot li tax ndax li tax rek mooy yàllaa ko digle lu tax ndax yàllaa ko digle lu tax nangam ndax yàllaa ko tere nihaayatu lu tax daal nihaayatu hoo wa anna allaha qad amar aw qad naha haadi nihaayatu mu ni lan mooy xalaatu lislaam ci li ñuy tuddee culture nationale xanaa wala beneen façon bi loola tontu nañ ci ba sonn xalaatu lislaam mooy lam ci amoon rek lislaam dafa sakkoon dafa sakkoon xeet wu ñuy wutee alal xeet yooyu ñuy wutee alal nag juróom la juróomi bunt la usul ne ci la ñuy wutee alal juróomi bunt yooyu nag am na ci ñeent yu dagan benn ba daganu alal dañ la koy may kon dagan na dakana li muy laaj di wut mayee kon bokkagut alal dañ la koy sarax kon mu dagan li muy laaj di wut saraxe kon bokkagut alal dañ nga koy donn mu dagan la li ñuy laaj yaakaar naa di wut ab dono kon bokkagut alal da koy ñaq liggéey ko mu dagan li muy wax nekkagut ab liggéey ñu di la ko fay kon mooy mooy li juróomeel kon daganut laaj ba ci des moom firim am baat la nee na baat bi ñuy wax porc la xaw ma teñ diw firi ne mooy xinsiir ndax loolu la wala déet baat boobu mooy firi xinsiir li ñuy wax porc porc day baatu tubaab la euh, xëy na du samay mbir nekkuma linguistique ci français ba mën a jàpp exactement lan mooy porc waaye dégg naa de ci ñi koy xam bu ñu gisee yàpp xinsiir danaa dégg ñoom ñuy wax ne mooy porc en tout cas xaw ma luy porc ndax du loolu laa jàng waaye moom xam naa ko mooy mbaam xuux wala mbaam tugal looloy xinziir ñaar la nag am na bari am na ahli xinzirul ahli mooy mbaam xuux bi ñu yar ci kër gi xinzirul bari mooy mbaam àll yooyu moom dagganut su fekkee yooyooyu pork nag pork dagganut bu ko duwul nag loolu xaw ma ko ndax loolu du sama fànn. kii Abdou Assis la nee na day laaj. njàpp ki ngëneelam ak takbiratul ihram ki ngëneelam yooyu moom yaakaar naa bu ñëwee ci ilimaan rek dana ko mën a teqaleel kii nag kii nag Ibrahima Fall la tudd day laaj xaqul walid allah waladihi maanaam durwaay way jur ci doomam ak durwaay doom ci way juram mooy laaj bu njëkk bi xam naa laaj boobu rek mën na conférence waaye baay bu nekk daal durwaay yi doomu am ci moom mooy ay an yuallimahul kitabata wa rimayata wa sibahata wa an yusammiha isman hasanan wa an la yarzuqahu illa tayiban la yonent bi wax doom ju ne am nga droit ci sa bàyyi na la tuddee turu rafet muy turu woo xam ne turu diine la du tekki benn bokkaale donte sàmba la demb la yëpp baax na ndax tekkiwut benn bokkaale waaye tur bu mel ni ay yàq mbootu ak lii mu dee yooyu baay bu ko tuddee doom doom ja amel nga ko bakkaar dana la ko toppee yomal xiyam bépp tur buy niru shirku daganut loolu mooy ci tur bu juddoo itam bu amee am xar na ko ko reyal kullu waladin marhunun a aqiqati bu weesoo na ko jàngal ba mën a bind ndax xam-xam mu ngi yem ci mën a bind rek ku mën a bind rek léegi am nga xam-xam foo yem léegi yow la neex na ko xamal féey mooy na ko xamal sonn na ko xamal sànni mooy fet wala fetal na ko jàngal daal yi góor yi di war a mën a jàng yépp noonu la yéen di wax ne moo ko war doom nag li ko war ci bàyyam mooy ihsaan rek ihsaan nag mooy yaatu mooy mat na conférence mooy doom ji na rafetal jëm ci way juram bu mu ne ko cam bu mu ne ko mbas bu mu ko xeeb bu mu ko gëdd bu mu bu ñàkk topp ay ndigalam moom itam looloo ko ci war loolu nag mooy yaatu waaye bu ñu ko tënkee loolu rek lay doon Ibrahima Fall ba tey mooy laaj mu ni lu tax nit ñi bu fekkente ni dañoo fas jigéen dañ koy daal di génne néeg ba rek amutul droit ca nekkati fa waaw ñaari mbir rek moo koy waral benn ki fase xamul sunna mu génne wala wut sax ndaw si jomam jàpp ko mu génn waaye bu ndaw si mënoon ñu fase ko mu ñàkk génn nii ba ba yeddam jeex loolu la sharia bëggoon loola na day ami charte waa jaa koy dundal te itam ndaw sa bu mu génn di dem feneen di ñëw ba mu recevoir ay góor it ca kër ga looloy illaa an yaatina bi mu fahishatin mubayyana su boobaa ñu génne ko waaye génn gi daal waratoon am ndax sharia dafa bëggoon bu ñu ko fasee muy eddawoo ci ci néegam ci kër gi ndaxte lee tey bu juboo amee defar gi yomb ndax ko xas génn kër gi bu juboo amee defar gi day jafe moo tax alquran ne laal la laaw yuhdisu baada zalika amran looloy amru mu ni lan mooy li war nag ci cam soo xam ne si la maanaam ku góor koo xam ne dafa bëgg tëkk jabar lan la war a préparer muy ab lim boo xam ne bi la moom la war a mën a joxe pour loola ah ci alal di amul àpp lu mu am lu mu bari bari bari bari bari jëmbut ndaw sax waaye lu mu néew néew itam war na caa mën takk kon alal ji ñuy tëkkee jigéen cig tuuti amul dayo waaye cig bari it amul dayo lu tax lu tax cig bari amul dayo alquran moo ne wa aataytum idaahunna qintaaran qintaar dafa bari lool kenn amu kon nag bari gi du am app tuuti gi du am app ndax yonent bi mayee na jabar ci jaaru beñ gu ñuul sax waaja faru ko am lu may benn saaru alquran wu mokkal lañ ko mayee kon tuuti gi amul àpp bari gi amul àpp goro daal mooy goreyante rek na ku nekk gore ci sa morom te it ku gën a néew ak can mu ëpp barke muy way di laaj toujours naan ndax dagan na ñuy tàgg ci jàkka li mën naa am ci biir jàkk ji nag baaxul jàkk moom loolu taxutoon ñu tabax ko rawatina nag diw am na ngént ak ci biir jàkk jàkk ku réerlew fasak nangam nangam ak ku for nangam ak daganut Alfayda FM asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi ñëw yéen ci waxtaanee mashahid ak ahwaal yowmal qiyaam mu di ay bés yoo xam ne doomu aadama yépp nar nañ ko dund ñu tuddee ko yowmal qiyaam mashahid boo ko déggee mooy ay teewuwaay ak itam ay feeñuwaay ak i tiit yoo xam ne doomu aadama yi nar nañu dajeek moom yowmal qiyaama muy bés bi nga xam ne dañuy taxaw ca kanam borom bi eh, waxtaanee ko nag war nga ci mën a waxtaanee fàttalil jullit bi bés boobu lan moo cay am nan lay nekkee ci lan lay fekk mbindeef yi ndax nga waar leen nga jàjj leen nga dellu si leen ci njub balaa bés booboo dikk ndaxte lee tey nit ki mën a continuer liggéeyam balaa muy wàcc ci bàmmeel mbokk yi ñu bokk yàlla waxtaani mashahid yawmal qiyaam ci waxtu wu mel nii mën naa am ay njëriñ waaye danañu jéem kemb kàttan fàttali leen len na ci mashahid ya donte yépp nag mënul ñëw ci benn waxtaan ak ci benn jataay waaye terewul bu ko yàlla dogalee danaa jéem a tënk daal dara ci feeñuwaay ak teewaay yowmal qiyaam loo xam ne nit kuy déglu mën na ca jëriñu bu fekkee ubbi na ab xolam tey ci lay jox xibaar bi mooy yàlla mi nga xam ne moo moom yowmal qiyam ak yonent bi nga xam ne moom la yónni ñoo lay jox xibaar alfayda fm mbokk yi ñuy déglu rod na ci alquran baatab al yawm rod na ci alquran comme ni nga xam ne noonu lañ ko takkee te ki ko takk di oustaz Mouhamed Fouad Abdoul Baqi ci téereem bu ñu naan mu'jamul mufaaras li alfaadil quraanil karim nee na baatab yawma rot na ci alquran trois cent quarante-huit fois ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti yoon yàlla tudd na ko yawma ma loola li muy tekki mooy bés boobu bés bu màgg la nar a doon wante bés bu rëy la yawmal qiyaama bés bu yàgg la yàlla moo ko yàggal waaye bu yàgg ci mbindeef yi la ndax alquran a ngi wax naan yawmal qiyaama benn bés la boo xam ne dina tolloog junney at junney at nag boo ko calculer guddaayam day nekk trois cent soixante cinq mille jours ñetti téeméer juróom benn fukk ak juróomi junney bés yowmal qiyaam benn bés bi noonu lay toll kon loolu gudd na ci alquran moo ko wax wa inna wa anna wa inna yowman inda rabbika ka alfi sanatin mimma taudduun naka benn bés fa yàlla yowmal qiyaama njunney at lay tollool ci ni ngeen koy lime wax ji ma ngi ci suuratul xaj ji aaya 47 mbokk yi nu mbokk yàlla xam naa waxtu dina xat ba duma mën a indi 348 yow ma yépp waaye dinaa jéem tànn ci même bu doon juróom-ñett fukki yow yoo xam ne day wax ci mashahid yowmal qiyaamati ñoo jëm ko jàngat ak yéen ci téereb yàlla bu tedd bi mbokk yi wax ji may wax nag waxu yàlla rek la ak waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, nekk na it wax joo xam ne xëy na ñu bari mas naa am fu ñu ko dégg ndax bi ma ko njëkk def ci chaîne nationale 1980 la woon kon nag am na yeneen ñu ko ñu ko ñaan ci ay conférence waaye nag bii dafay nekk bu spécial boo xam ne dañ leen koy tënkal ndax ci lee nga ñëw rek jëriñu ci ci diir bu gàtt rek dem sa yoon kon mashahid yawmal qiyamati buñ la koy nettali dañ lay wan ne borom bi tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo ko waxal boppam kon nag ñu déglu te ñaan yàlla mu jox ñu tawfiq ndax ñu am tawfiq ci li nga xam ne moom la nar a euh, waxtaani yowmul qiyaamati bés la boo xam ne yàlla da cay boole mbindeef yépp ci benn béréb da ñu sampaleen ca kanam yàlla su ko defee mu tegal leen baskil muy peesekaay boo xam ne bu maando la ngir ñu mën a màndaxe muy peese jëfi jaam yi wante mbokk yi bu kerogee ku ñu peese sa jëf yu baax mu gën a bari kooku yaay am ci àllaaxira dund boo xam ne bu rafet la waaye dund boo xam ne bu ñu gërëm la waaye ku ñu peese say jëf euh, jëf yu baax ya néew yu bon ya lëng ka ah kooka alquran nee na safara wuñ naan xaawiya lay dëkk xam nga yowmal qiyaamati bu ñu la peeselee ba sottal su baaxee du bonati waaye bu bonee du baaxati kon war nga koo xam léegi balaa ngaa dem foofale bés la boo xam ne ñun ñëpp nag ñoo koy teewee amul kenn kuy tardé nit loo ko woo am ñu ñëwagul ak ñu tardé ñu ak seegut ba mu des yowal qiyaam ñëpp a koy teewee ci ñëpp ay jaam lañuy doon ci kanam yàlla mi nga xam ne moo sax mooy dund kenn du fa ñëw ak daraja kenn du fa ñëw ak man-man ku nekk da ngay ñëw rek nekk jaamab yàlla comme ni ko alquran waxee in kullu man fi lsamawati wal ard illa aati rrahmani abdan laqad axsaahum wa addahum adda wa kulluhum aati yowm alqiyamati fardan yàlla nee na keroog yowm alqiyaama képp ku nekkoon ci asamaan si dund wala ci suuf da ngay ñëw ci kanam yàlla doo nekk kilifa keroog ab jaam rek ngay nekk nag yàlla nee na man konte naa leen ba xam nañu toll waaye ñépp nag ku ci ne booy ñëw yomal qiyaamati ci kanam yàlla yow daal yaay ànd kenn du la jàppale kenn du la dimbale dolla nga ci kenn yowmal qiyaamati fardan yow kenn rek loolu mën ci suratu Maryam mbokk yi yowmal qiyaam sikk nekku ci ne day dikk sikk nekku ci ne day ñëw bu ñeboo ñu sóoraale ko ndax yàlla moo ñu wax ne wa anna saata aatiyatun laa rayba fiiha wa anna allaha yabasu man fi l yàlla ne bés penc aji dikkalam nee na sikk nekku ci te ñëpp ñi dee ci bàmmeel yi ak nuñ mën a mel yàlla dana leen dekkal loolu mu ngi ci suratul xajj alquran yi ñuy wax ba tey ne na saa la aatiyatun laa rayba fiiha walakinna aktara naasi la yuminuun nee na bés penc luy ñëw la sikk nekku ci waaye ñu gën a bëri ci nit ñi nag gëmuñu loolu suratu gaafiri la alquran yi ñuy wax naa wa anna saata atiyatun akaadu uxfiha li tujza kullu nafsin bi ma tasaa nee na bis penc luy ñëw la man yàlla dama koy xaw a nëbb jaam yi waaye bu ñëwee day bakkan bu ne dinaa ko fay li mu doon jëf kooku ngi ci sooratu taaxa kon mbokk yi baatu yowmal qiyaam wax naa ne yow rot na ci biir téere bi cent 348 fois muy ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett tey nag dafa am rek lu ma ci tànn li ma ciy tànn mooy maa ngi jël ci bopp téere bi suratul baqara yàlla ñu naan anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yaati yawmun laa bay'un fiihi wala xulla na ngeen liggéeyal yàlla jël li ngeen di am ci àddina ngeen di ko joxe ngir yàlla balaa bés a dikk boo xam ne su ñëwee ak xari xarit du la jëriñ dara boo jaayee du jar booy jënd kenn du la jaay kooku suratul baqara la boo toxoo ñëw ci ali imran am na fu yàlla naan fa kayfa if jamaanaahum li yawmin laa rayba fii mooy yonente bi mbir mu yéemoo mu yowmal qiyaamati su ma dajalee ñu ñëpp ci benn béréb ci bés boo xam ne sikk nekku ci kooku aaya vingt-cinq la mu ngi ci ali imran ba yàlla ngi wax naan yawma tajidu kullu nafsin maa amilat min xayrin muxdaran nee na yowmal qiyaamati bés la boo xam bakkan bu nekk lépp lu mu doon liggéey ci àddina dañ ko teewal ca kanamam kooku aaya trent la mu ci Ali Imran yàlla ñu naan yow yawma tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuh bés ngi nii boo xam ne su ñëwee ay xar kanam dana kontaan ba weex ba leer ay ay xar kanam dana ñëkk am naqar ndax nar a dem safara kooku aaya 106 la mu ci suratu Ali Imran yàlla ñu naan wa man yaxlul yaati bi ma xalla alqiyaama kon doomu aadama yi jubleente maandoo yàlla ngi naan yowmal qiyaam day képp ku daan sàcc alali jaambur booy tekki yowmal qiyaam dañ lay takkal la nga sàccoon nga yenu ko muy keleng-keleng yi ni ay jóololi noonu ngay dikkee ca kanam nit ña kooku aaya 161 la mu ngi ci Ali Imran yàlla ñu naan kullu nafsin daaiqatul mawt wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyaamati yàlla ngi naan bakkan bu nekk faw wa mu mus dee te it foofu dañ leen di matalal seen liggéey fay leen ko ba mat sëg kooku ba tey Al Imran yàlla ngi naan toxu na ci suratu nisa muy saaru jigéen wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir faqad dalla dalalan baida képp koo xam ne dangaa weddi yàlla mooy doo jëf lim la sant weddi malaaka yi mooy gëmuloo yàlla nga weddi téere yi mooy lañ santaane defu ko lañ tere bàyyiwoo ko nga weddi yonent yi mooy li lay digal ba ci jaar lañ lay tere doo ko bàyyi nga weddi bés pénc da nga yaakaar ne du ñëw yàlla ne kooku réer nga réer goo xam ne sori na dëgg aaya boobu suratu nisa la muy 136 yàlla ak ñuy wax ba tey ci beneen saar muy suratul maida qaala yan hada yawma yanfau yanfau sadiqina sidquhum yàlla nee na bis pénc wax dëgg baax na waaye jëf dëgg baax na nekk ku dëggu baax na ndax yowmal qiyaam kat mooy bis bi nga xam ne képp ku doon dëggu nekk nitu dëgg dëgg googu dina la jëriñ kon nga déggee ci ne ku nekkutoon nitu dëgg ñàkk am dëgg googulee dana la lor kooku aaya 119 la mu ngi ci suratu al maida mbokki jullit yi alquran a ngi wax naa yow mën a yawma naxshuruhum jamian summa naqulu lilladina ashraku ayna shurakaaukum alladina tazamun yàllaa ngi naan bés dana ñëw mu yowmal qiyaamati yéen ñëpp dañ leen di fang jóor leen ci benn béréb mel ni ko doon bale ba dajale mbalit mi ci benn béréb yàlla ne bu keroogee danaa wax ne képp ku jaamu woon ku duhut yàlla wala képp ko xam ne sa yaakaar tegoon nga ko fu duhut yàlla danaa wax ne man yàlla ana sama bokkaale ya sama nawle ya sama morom ya yi ngeen tegoon sama place kooku ay vingt-deux lam ci suratul an'am yàlla ñu naan al yawma nansaakum kama nasu liqaa yawmihim haada mu ne yawmal qiyaamati dama leen di sànni ca mbugal ma abandonné leen fa nag dootuma toppatoo seen mbir ndax yéen da ngeen a fàtte woon bés bii ne dafa ñu nar a ñëw loolu aaya la mu ci suratu al araf yàlla ñu naan yow ma yuhmaa alayha fi naari jahannam fa tukwaa biha jibaahum wa junubuhum nee na jullit ñi nga xam ne wala nit ñi nga xam ne rek seen alal duñ ci génnee azaka xàqu yàlla duñ ko ci génnee yowmal qiyaam damay jël alal ja tàngal ko ba mu nekk safara di ko ñaas di leen ko lakkee seen jëya di jàllar bi ak seen gannaaw ga ak seen wàll ga noonu laa leen koy yowmal qiyaam kooku 35 la mu ngi ci suuratu tawba yàlla ak ñu naan yow ma yow ma yow ma yaxshuruhum ka an lam yalbasu ila saati min naar mu ne bés pénc métti ne méttiwaay goo xam ne bu yàlla fa ngee jaam ya bañ janoog moom ne fung taxaw ci kanamam keroog dañuy fàtte sax lañ nekkoon ci àddina lu mu neex neex dañuy yaakaar ne àddina benn waxtu rekk la woon aaye boobu muy aaye 45 mu ngi ci suratu tawba yàlla ak ñu naan yow ma yaati laa tukallimu nafsun illa bi idni bi yëpp bés penc bu ñëwee mu yowmal qiyaamati lu nit rëy rëy làmmiñ loo fasaaxa loo man man lay mu ne keroog duñu jox kenn parole kenn du wax ku wax yàlla la jox ndigal kooku aaya cent cinq la muy suratu Hud yàlla ngi naan yowma tubaddalu l ardu geyra al ardi wa samawaat wa barazu lillahi alwaahidi alqahaar mu ne bés pénc yàlla day jël suuf siinu dëkkoon soppi ko beneen suuf jël asamaan si taxañ ko mu dem ñëpp ne fëng génn def yaramu neen ñëpp yaramu neen la ñuy def wa taral mujrimina yawma idin muqarinina fil aswat yàlla ne na keroog defkati bàkkaar yi da nga leen gis dañ leen di yeew di leen lëkkale ñaar ñaar ceen leen ñett ñett boole leen ceen ci njoñ loolu aaya 48 la mu ngi ci suratu ibrahim yàlla ñu naan qaala innaka min almundarin ila yawmi alwaqti almaalum xatta cheytaane xatta iblis ak la muy bari bari ay pexe moom Iblis dafa ne yàlla muñal ma ba ba ñuy dekki bëggoon a tëb dee bëggoon a tëb mbugal yàlla nekk ko yow de ñu ngi lay muñal ba bés bu ñu xam kooku euh, trent 38 la mu ci suratu alhijri yàlla ak ñu naan yow ma taati kullu nafsin tujaadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum laa yadlamuun bés ñëw muy bakkan bu nekk nit ku ne danga taxaw di xuloog sa bopp ndax lu bon li nga defoon ñu di la ko fay nga naan loxo yaa def lii tànk yaa def lii ndax bakkan bu nekk keroog danañ ko fay lépp lu mu doon def ci àddina te yàlla nee na desul leen tooñ loo fekk rek yaa ko faj kooku aaya 111 la muy suratu naxli yàllaa ngi naan iqra kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka xasiba mu ne yowmal qiyaam ku nekk booy dekk da ngay indiwaale sa téere mu ne téere boobu na lépp loo mës a def bi nga majoré mat mu kàllaf nekk responsable ci say acte ba bëgg ngay génn àddina lépp loo def bu baaxee ñu ngi ko ci bind su bonee ñu ngi ko ci bind dañ lay jox rek ne la jàngal ku mënutoon a jàngit boo demee foofu keroog da nga mën a jàng su ko defee ñu naan la jàngal sa téere da nga xam li ngay def tey yaay xisaab sa bopp kooku aaya 14 la fukk ak ñeent mu ngi ci suratu Isra yàlla ak ñu naan wa yawma nusayyiru al jibaal wa tara al arda barizatan wa xasharnaahum falam nu gaadir minhum ahada ne na yowmal qiyaamati bés la boo xam ne doj yi muy montagne yi dañ leen di joxoñ rekk ñu dem ca xëy bëgg a fañ jóge woon ñu dellu fa kenn du leen sati suuf si doo amati montagne doo amati xur doo amati ay garab dafa naa nu fëng fëng yi ren ñëpp dal di dekki génn ci suuf si ne fëng kenn solul mbubbu kenn solul mbaxana kenn yorewul dara ñëpp nekk mu neen ku nekk nga gàddu say téere mu ne ñëpp nag ma fa nga leen yàlla ne keroog du ma bàyyi kenn ñëpp lay génne kooku ay 47 la mu ngi ci suratu alkaafi alquran ak ñuy wax naan wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati farda ma yow jaamu yàlla boo yaakaar ne yowma alqiyam ci kenn wala da ngay ànd ak kenn doo ànd jabar di ci làqu doo ànd ak jëkkër di ci làqu doo ànd ndey di ci làqu doo ànd bay di ci làqu doo ànd ak sëriñ di ci làqu yow kenn rek yaay ñëw alquran ne wa kulluhum aatihi yowmal qiyaamati fardan ku nekk yowmal qiyaam booy ñëw yow daal yaay ñëw kooku aaya 95 la mu ci suratu Maryam yàlla dong mooy wax yow ma yunfaxu fi suur wa naxshuru al mujrimin yow ma idin zurqa mu ne bés ba ñëwoon bufta bi bufta mooy ngëliir ngëliir mooy béjjën bu mag la wolof di wax bufta asrafil malaaka mi day wal bufta bi ne ee yéen yax yu funax yi yu ñepptikoo yi ee yéen kawar yu yi génn leen wuy seen borom ku nekk fa nga tëddoon nga ne bëreet ndax yàlla am na capacité ci boole nit ki mu jógaat su ko defee ku ci nekk yaa nga xulli say bët rawaate na def ko ci bàkkaar ya ñu nga seen bët yaa ngi xol la xollooral ñu tiit kooku aaya cent deux la mu ngi ci suratu euh, Taaha alquran ak ñu wax naan yawma natwi samaa ka tayyisil lil kitaab bés boo xam ne dañuy taxañ asamaan mel ni kuy taxañ sa téere di ko yóbbu asamaan si ñu ñore ko mu jógee fi moom bi diw yeeg jënt beeg yépp kooku aaya 104 la mu ci suratu al anbiya ni yàllaa ñu naan yawma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma ardaat wa tadau kullu daati xamlin xamlaha borom bi mu ngi wax naan bés pénc mu yowmal qiyaamati bés la boo xam ne jigéen sax dana tase doom jëm nampaloon jur ko nampal ko du ko xàmmeeti keroog tiit ma dana bari bari bee bu fekkoon jigéen ëmboon ca sax dana yémbi la mu ëmboon ngir tiitaayu bis pénc ñu ne borom bi lan war waral loolu ndax nit ñi dañoo màndi mu ne déedéet wa tara naasa sukkaara wa maa hum bi sukkaara walakin adaballaahi shadid da ngay gis nit ñi ni ñuy kër kër yi ni ñuy xëñ xëñ yi day mel ni dañoo màndi sàngara ndax ñàkk seenam xel ndax tiitaange waaye màndi mbugalam yàlla ma rek moo métti moo tiis kooku aaya deux la mu ngi ci suratu alxajji alquran ak ñuy wax naan xata ida jaa ahaduhum almawt qaala rabbi irjicni laalli amalu salihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzaqun ila yawmi yubcasuun fa ida nufixa fi suur fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun ah mbokk yi foofu métti na foofu simplul borom baa ngi wax naan nit nekk ci àddina di def lu ko neex du topp lu yàlla du bàyyi tereex bu dee teewee nag mu ne lëcc nag ba ti dee teew muy xalaat naan yàlla delloo ma delloo ma ci dund ak ci àddina amaan na danaa def def ju baax yoo xam ne daama ci gërëm yàlla delloo ma delloo ma àddina delloo ma àddina bu ne kalla déedéet dellu amatul loolu da koy wax rek kalimatun huwa qailuha yooyu wax yaa koy wax rek waaye yow këy xam nga ne sopp nga àllaaxira doo dellu siwaat yaa ngi jëm barzaq barzaq mooy lan moo di ab diggalee nit ñi dee nañ fi ñu nekk foofu ku dee foofu ngay nekk ba ñëpp a ñu door a indi yowmal qiyaam foofu ñu nekk nag balaa ñëpp dee moo ñi dee ñëpp ñu nga fa foofu moo di barzaq yàlla ne fa la ñuy toog ba bés ba ñuy dekki waaye nag yàlla ne la bu ñu walee bufta bi ba asraafil malaaka mi yax yu funax yi eey yàpp yi ñappatikoo yi eey yéen kawar yu tasaaroo yi génn leen wuy seen borom mu ne ñëpp dañuy jógandoor taxaw benn yoon bu keroog askan amul duñ laajante kenn bokkul ak kenn kenn amul askan loolu mbir mu metti la kon mbokk yi loolu mbir la moo xam ne mu jar a bàyyi xel la. FM. Alfayda FM. Alaahi sallallahu alayhi ayuha al ixwatu fillah wal asdiqa fi l ixlaas asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi nuyu iliman bi di nuyu